You're my wisdom, wisdom. Assalamualaikum wa wabarakatuh. wa barakaatu ñu ngi nuyu ñep ku ci nek sa tour ak sa sante di len ziar di len magal di len di len titro di len bu wër contane ci yeen ya, ni discours dembi mom toyal na xol yi dalal na xel yi na nimité kep ki nga xamni euh yalla mayna la xel te yalla mayna la xol bu baax it nangu nga ka nga don non ka nga ñak don non Euh, wax ji am na solo wax ji dal na wax ji xam-xamu kese la wax ji tamit wax ju génnee ci xol la loolu moo tax mu tàbbi ci xolu sénégalais yi nga gis ni démb ak tey vraiment képp ku yàlla baaxee rek kontaan nga ci waaw loolu nag sant yàlla la rek sant yàlla la day wane ni sénégalais yi choisir nañ ku baax choisir nañ ñu baax te seen choix am na solo yaakaar naa ni Euh, te kenn wul sen nit yu ni ñu dëggoo ay nit yu deggu lañ lu ma gën neex ci ñom nak moy nit yu am diiné lañ nit mom bu amé diiné rek te diiné gi sel mu baña nek diiné tricherie mu nek diiné ragal yalla rek koku mën nga ko mën nga ko jox confiance te sincèrement loolu mo nek ci ki nga xamni moy président Diomaye ak ki nga xamni mo nek président Ousmane Sonko parce que ay nit yu am diiné lañ ay nit yu vraiment yu am diiné yoo xamni ni dem ak luñu mëna japp bu waxtu julli ñuk ko lañ ko fay bayyi ne yaqbu yaqbu naqari dem julli ji wala ñu japp wala ñu dem nek ci jaamu yalla ay nit yu euh mëna leen won ben affaire sax rané ne leen attends euh, leen di dama leen di won rek juste li Paris la won gaay ñew nañ di wax ak waktu waxtu julli jot ndaysan nit ko am diine nit ko am yar mu summi ay dalam foko fek nak day and ak njapp jomay mo xamni foko fek bu njappam tojo sax day dem wat pour ñuko xamul bu jappam bu bu jappon tay ji dem duggu ci toilette bala genn day japp lolu ci jomay la nek bi mi ngi France gaay yi seet ko mom mi ngi mi ngi julli Oh, da lii ay dàllam la ay dàllam la mi ngi moom mi ngi mi ngi summi ay dàllam xoolal gars yi ñu ngi waxtaan de ñii ñëpp samay gars yi la ay jullit lañ de mais xoolal moom ma nga summi ay dàllam moom président ba ma nga dem julli ci di ko gis muy julli lii rek firnde la nit kii Macky Sall kenn du ko wane ci lu mel nii du dem mukk ci tubaab ya ne ah ci tubaab yi laa nekk xaaral ma dem julli ji dama ne président bu gënoon ngand ci monde bi bu toog ak jomaay bu waxtu julli jotee day jóg dem yoonam mi ngi nee di julli xool ko mi ngi nee di julli summi ay dàllam di julli mi ngi nii summi ay dàllam di julli gis ngeen ko mi ngi mi ngi fële taw ci ruq ba dérangéwul kenn di julli donc lii rek pour ku ko xamul gis ngeen ki ngeen am dafa jullite ragal yàlla kenn mënu ko teqale kii kenn du ko teqale ak ay Macky Sall ak ay keneen ak keneen jeune la xam na ni yàlla moo ko wàcce ci kaw suuf xam na ni lu mu am yàlla la xam na ni yàlla da ko wàcce pour mu jaamu ko umpalewul ni yàlla xam na ni moom yàlla da ko wàcce pour mu jaamu ko kon lépp lu koy fu ko yàlla mën a tegre daf dafa war a jaamu yàlla bu ko dénkee alal askan da ci war a jaamu yàlla bu ko joxee ab liggéey da ci war a jaamu yàlla et cetera cetera kooku nag dénkaane da ngay dénk ku gëm yàlla ak ku ragal yàlla Sénégal bari na ñu gëm yàlla mais ragaluñu yàlla foofu la seen problème nekkee mais booy dénk dangay ngay dénk ku gëm yàlla te ragal yàlla ku mel ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax dëkk bi yépp doon ko dénk ndeem jàngul woon am ñu jàng ba dajale lépp mais ku doon dénk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga doon dénk ndax dafa gëm yàlla ragal yàlla loolu moo nekk ci Diomaye le président Diomaye loolu moo nekk ci président Ousmane Sonko ay nit yu am ay valeur lañ ay valeur cardinale loo xam ne lépp lu ñu def yàlla lañ ciy jiital lépp lu ñu def yàlla rek lañ ciy jiital léegi nag Sénégal lii Ousmane Sonko ak Diomaye njàngat bu am solo la yàlla gis nga situation bu nekk dëkk bu nekk depuis yàlla de yàlla ca yàlla ja nga xamni mo fi ñëk nek nekk budara fi nekkon bu dara amul te mo fi mujj dekk bu am ci aduna temps bu ne amna lum leen waccel ak lum leen jangal yalla musul bayyi di wache ci bir nit yi bu wacce nak du jëk asaman ay njabot la fami mu rocc kenn defar ko pour mu dem jangal ñeneen ñi wala mu xamal ñeneen ñi ngeen gis ngeen fi Sodome gis ngeen fi Gomor gis ngeen fi Sodome ak Gomor gis ngeen fi gis ngeen fi yent yàlla Moussa gis ngeen fi ak Firawna gis ngeen bu dee gis ngeen ko fi yàlla ba mu nammee gis ngeen fi Macky Sall gis ngeen fi Ablaye Wade gis ngeen fi keneen ak keneen léegi nag sénégalais yi dem ba sonn amoon espoir ni di ñaan yàlla yàlla nag moom ndeysaan boo ko ñaanee da lay may de di ñaan yàlla yalla may leen lu bax lu ñuy gis seen bop yek ci seen bop ay nit yu am diiné yu am ngëm-ngëm yu am gëm aada am am cër ci doomu aadama xam lan euh, représentant de Dieu sur terre moy la personne l'humanité nan ngay respecter l'humain etc. tout tourne autour de l'humain yalla dem fexé ba indil ñu Sonko ak Diomaye Sonko ak nak ay qualité yu ñu won bépp doomu aadama bu ci doxee wallaahi doo ko rëccu won nañu ngor ñoom ñaar te dinaa leen xamal dara bu ñuy créer Pastef Sonko n'était pas là bu ñuy créer Pastef Sonko ci boppam xamul sax nit ñi ngi waajal créer Pastef gars yi dem ay réunion yu ñu doon defee université la jomaa yi di ko présider ñu ne dañuy créer Pastef benn parti bu ñu demee bay wëri leader jomaay moo joxoon Sonko moo tax ku xamul Sonko mooy jomaay jomaay moo Sonko <laughs> fu mu dafa sori ñun ñi ko génne génne ko ci ay maali furo nee naa leen dafa dafa am ay base fondamentale si Sonko jomaay jomaay Sonko am na ñu koy waxantu nii rek ci làmmiñ yaa ko sori ba ñu toogee ñoom ñëpp di xalaat ba teg Pastef ñu ne kan moo ko war a jiite jomaay moo joxoñ loxo ne xam naa kenn koo xam ne mun naa leen ko proposer ne leen Ousmane Sonko boobu moom ak Ousmane Sonko ñoo nekk impôt domaine jomaay moo dem siffler ci nopp Ousmane Sonko ne ko dañoo créer parti te dañoo bëgg yow nga jiite ko Ousmane ne ko jiite parti non mu ne yow rek lañ ci wóolu donc jomaay moo def Ousmane Sonko mu mu jiite Pastef ndax moo ko proposé ni mu toogaloon pour ñu créer pastef ñi ci bare ngi pastef ni directeur port baa nga fa woon euh, ñi ci bare ngi fa mais Sonko nek fa woon troisième réunion troisième réunion ci la Sonko dogo ñe ñëwee def ko président pastef mu jité pastef kon jomay mo proposer Sonko si Sonko tok tay jomay moko fa tek ndax moko proposer té bu mu koy proposer nek fa won ci troisième réunion deuxième réunion bi mu ñëwaat même chose troisième réunion la Sonko doogu a ñu fal ko kon foofu yàgg na Jomaay ak Sonko yàgg na ndax Jomaay moo fal Sonko ba mu nekk lii. adduna di dox yàlla di jàngal gaay yi yàlla di jàngal gaay ba tey ji Sonko fal Jomaay gis ngeen de ba tey Sonko fal Jomaay moo tax loolu Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko léegi nag dafa am beneen affaire bu am il faut ngeen comprendre ko. ñun ñëpp xam nañ la famille sénégalaise jëkkër ak jabar dinañ doon ay xam nga xarit ak àndandoo bokkut te xam ngeen loolu xarit dina gën doomu ndey parti dina am ay àndandoo nit yi di ànd di nekk bokk idée bokk lépp di wax mais xarit xarit xam ngeen luy xarit olof njaay nee na mun ngaa am junni doomu aadama yi ngay àndal kenn du ci sa xarit say àndandoo lañ say camarade lañ ngeen di ànd di dem mais duñ sax xarit xam ngeen luy xarit xarit mooy genn wàll xarit mooy genn wàll ab ŋàddub guro nga dagg ko lii ak lii li naan xaritu guro gi xarit mooy genn wàll gi benn la mooy nga xaaj ma ñaar kii di kii Sonko ak Jomaay ay camarade de parti lañ ba pare nekkaat ay camarades yoo xam ne ñoom ñooy liggéeyandoo ci impôt et domaine waaye du ñuy ay xarit yu doon nekk di ànd suba ak ngoon di waxante kii di dóorante di kii ak non non no non non il se respecte il s'aime il se respecte mooy lu njëkk qualité bu njëkk diggante Sonko ak Diomaye est-ce que xam nga ni Sonko ak Diomaye dañoo rusante Sonko ak Diomaye dañoo rusante ci ñu bëri xamul Sonko ak Diomaye dañoo rusante Sonko am na ay xaritam yoo xam ni depuis ami d'enfance la bu gisanteeg ñoom danga naan mais mais est-ce que Sonko mii la day waxanteeg ñoom dóor kafre yanu bu boo ko fekkee Casamance mu ay xaritam yu mu doon àndal yoo xam ne newuñu ci politique am na ci benn xaritam boo xam ne dawal kotu taxi la kooku bu gisee Sonko da koy saaga ay saaga ay saaga yu ne seen famille dañoo xamante parce que ñoom HLM neema la ñu màggee kooku dawal kotu taxi bu gisee boo ko waxee Sonko ay damay tàngam tàng loolu xaritam la ay ami d'enfance la mais Sonko la mu mun a wax ak xaritam boobu taximaan bi munu ko wax a Jomaay parce que kii camaradam la du xarit bi ñuy ànd di dóorante ak saagante ay ndey man am naa xarit kës boo xam ne bu ma gisoon tey daf may saaga ndey wax lu ko ne ay damay toj est-ce sama xarit la xarit fu ne ànd nañ fa buñ dee booy ba léegi ànd di baali di tëb ay miir di dugg di dem dugal benn suus kenn génn jox keneen ki ñu dem sotteeku ndox mu tooy mu génn mu mel di duggaat ci boîte bi mel ni ku ñàkk ko dund dañu dund dund dund dund doxaan gel bokk gel wax fii yàqalante donc ay xarit lañ <laughs> loo olof loolu lay wax xarit donc xarit ak doomu ndey ak xarit ak àndandoo bokkuñu donc Sonko ak Jomaay dañoo joxante cër nawlawante di ànd respectante waaye newuñu ñuy ànd di jamandoo partout jamandoo baali jamandoo nangama na non dañoo joxante cër bu ñuy wax ñoom ñaar sax dañoo xaw a rusante parce que Jomaay daa dal Sonko daa rëf loolu yàlla moo ko def Sonko sama genre gii la yalla moy def lol nak man ki top ci man aka dal buy wax da ngay bëgg nalaw aka dal ñuma xam sax buñu wax dañ na bi dafa dal tay man dama reuf lolou yalla mo koy def mo jël ku nek dox la ben jikko ki dafa reuf ki dafa dal ki dafa ku nek am jikko bu la yalla def ci yow mais lolou mo mo indi sen sen stabilité ñom ñaar ba pare jomaay moo ci nekk koo xam ni moom ak sonko dëgg rek la ñu séq sonko fu mu bëggoon dégg-dëgg jomaay lay woo parti bi lu muy rëy rëy rëy amul ku ci sonko gën a jox cër jomaay lu muy rëy rëy bu soxlaa xel balaa laaj kenn jomaay lay laaj bu amee ci lu mu nekk bu ko kenn sañu wax jomaay mooy daal mooy taal otom ba ñëw ba ci moom toog moom wax ak moom lu muy wax ak moom dem yoonam Jomaay ak Sonko langage de vérité lañ mu a séq Jomaay rusul benn yoon pour wax Sonko dëgg Sonko du ruus benn yoon pour wax Jomaay dëgg mais nag Sonko dafa am benn yërmande bu rëy bu mu am ci Jomaay en tant que grand frère Sonko dafa bëgg Jomaay bëgg Jomaay ba bëgg koo def doom daf ko bëgg ba bëgg koo def doom Diomaye day xaw a fipp tuuti pour wan ne ko non du ma doom <laughs> mag laa ko loolu cofeel la Diomaye day mel ni benn frère buy ñëw bugg a wax grand am dëgg fekk Sonko am yërmande bu rëy ci Diomaye noonu lañu ñu mel nu comme sama rakk bi mu ngi nii dugg na léegi ñoo bokk ndey ak baay mu topp ci man Youssoufa Niass moo ma dàq wax dëgg que man des fois mu wax ma lu ma xam mais ma mel ni ku xamut ndax damaa am yërmande bu rëy ci moom moom mu jàpp ni moom dëgg moom rek ma ko <laughs> moo tax man damay gis ci damay gis Sonko ak Jomaay ci man ak Yuusufa mii daf may wax dëgg yoo kongu te du ci kii sax waaye fa xamoo loolu non non woo ko ni nangam nangam fekk man xam naa li may wax gënuma ko xam mais yërmande gi ma am ci moom moom xamul ni man dafa mel ni doom laa ko jàppe moom mu jàppee ma a frère goo xam dama dama ko war a wax dëgg dama ko war a wax dëgg dama koy wax dëgg loolu moo tax ni mu mel ak man melewu ma ko ak sama beneen frère lim xam ci man keneen xamu ko ci man te ñu bokk nag ñeneen ndey ak baay nu may partagé ak moom du ko partagé ak keneen papa sax duma ko partagé lim xam ci man bu ma ko bu ma ko koy wax du ma ko wax papa duma ko wax yaay duma ko wax frère moom kese donc noonu la Sonko ak Jomaay mel dañoo dem ba ñoom ñaar doon benn di waxante dëgg buñ ko waree wax di waxante waxante li am duñu ko nëbbante Sonko Sonko kenn kese moo koy wax sant pour cent dëgg muy Jomaay nëbb ko dara Jomaay moom Sonko dina ko wax dëgg mais da ko koy du bëgg sax mu mer ndeysaan loolu la leen jomaay doon wax démb naan bu bu yëgee ay filial daa ko ñëwal sama kër jomaay naa ko non du ma ñëw sa kër lu tax may ñëw sa kër yërmande xeetu yërmande boobu mag ak tax ant mag ak rak mag ak rak mag ak nañ bañ a doon ay xarit mu ay mag lañ yàlla boole leen ñu dëkk benn kër di lekk di naan mais frère mag bi am xarit rak yi am am xarit ñoom ñaar comme tamit mak ak rak am ay doon ay xarit xarit benen niveau la donc li Sonko wax c'est trop vrai Sonko ak Diomaye il se fréquente pas il se fréquente pas c'est-à-dire duñ demalante matin midi soir Diomaye bu ñëwé keur Sonko Il dafa am ay xarit am ay xarit de Diomaye amna ay xarit la galère ndo. université andando ay comme ay jumeaux comme ay frères jumeaux noonu laa mel ak sama frère bi on est comme des frères jumeaux mbo bo am na sax ñu ñu muy dem ñoo xam dañoo foog ni sama grand la man bu ma ñëwee ne Youssouf sama rakk la ñu ne ma <laughs> non ma ne ah comme lu mu newee sama grand non waa ji dafa dal non dafa tey non bopp la ma ah d' accord d' accord pourtant grand am de maay grand am xëy na nag sañ-sañ bi bu mu am ci man aw ma ko ci moom man moom moom yërmande bi ma am ci moom ak moom ni mu mën a waxee dëgg. ba loolu moom moo tax da ngay jàpp ni kii moom moo grand parce que grand moo war a taxawee noonu te man dama ko jox cëru cër boobu donc noonu la mbir yi demee kon Sonko ak yi ay nit la ñoo xam ni dañoo respectante mais du ñu nekk ñuy ànd matin midi soir di demalante déedéet donc loolu moo tax Sonko Jomaay ne Sonko du woon sama xarit maanaam du ñu woon nekk suba ngoon guddeeg bëccëg di ànd xamalante lépp noo non loolu amul amul woon ay nit lu joxante cër lañ yu cërëlante defante ay doon ay nawle di waxante dëgg des fois dañuy waxante dëgg mu tàng jomaay dem Sonko dem mais musuñu musuñu bàyyante musuñu bàyyante coowante voilà ils sont des copains mais pas des amis ils sont des copains ñuy coowante après Sonko day dem mais mais Sonko day woowaat Jomaay euh, day ñëw des fois des fois des tàng de tàkk nii tàkk gisuma gisewuma nii gisewuma naa noo bàyyi lii noo nga wax wax ay ñetti dëggam dem yoonam dañuy bu toogee Sonko da koy woo ñoom ñaar ñi ku nekk dem donc loolu la yàlla def xaritoo nag day am ci kaso xaritoo boobu moom moo indi ki nga xam ne moom mooy Jomaay ak ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Diagne kaso gis nga ñetti bërëb yi day dajale xarit ñetti barab yi jàppal ñetti kaso hôpital ak bàmmel bàmmel bàmmel yéen a ko bokk da ngeen bokk salaw lay def te kenn du waxalante kenn du kii ku ne yaay tal sa bopp hôpital boo leen ko bokkee mettit ngeen bokk mettit ngeen di ànd suba ngoon billaay même médecin bi buy ñëw di pikiir sa waa sax da nga koy yërëm ba médecin bi bu ñëwoon ba yor pikiiram war ko pikiir sa waa sax sa yaram bi day daw doo ko ko yéene parce que ni ngeen bokkee yéen a ngeen ñaar yëpp yéen a bokk kii toog ci lal bi kii toog ci lal bi ku nekk am lu mu yëg ci sa yaram kaso bi même chose day dajale kaso yéen ñaar yëpp nekk fa day dajale Cheikh Omar Diagne noonu la xamee noonu la xamee ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko ma nee na bu ma nee la bàmmeel nag mooy ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci barab boo xam ni barabu dëgg la tey jii ku ci nekk ci ñoom am nga yërmande ca keneen ka ca bu am nga ci yërmande mais tey bu yàlla defoon benn transition da ngay gis dina am yërmande parce que ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci barab yoo xam ni ñoom rek kenn lu leen fa dara kenn kenn amu fa possibilité foofu laay waxee c'est très philosophique samay wax des fois de ay degré la degré de réflexion la du damay wax rek nga ñëw rek jël rek xor oh, ah, bàmmel oh, dee nañ ko oh, non non non je parle au commun des mortels bu ñu demee nag ba bokk loolu moo tax ay gang di dajaloo bu ñu demee ba bokk ay gang di dajaloo ci ci kaso bi ñi ñiy gaayinoo ñu ci bari dañoo xamante ci kaso bi gars yi noo foofu noonu nekk benn di partagé mu loolu moo tax mu dem ba Sonko tuddee Jomaay tuddee doomam Sonko Jomaay tuddee doomam Sonko kon xam ngeen kon foofu gars yi noo dëgg dëgg dëgg am na fa maanaam respect am na fa mutuel yërmande am na fa. exact c'est de la métaphysique mutuelle am na fa respect boobu am na fa ba jomaay jël doomam li day di doom mais tuddee ko ko tuddee ko ko la yàlla day def loolu sama nijaay bi nekk fii tey njaga caam ga balla caam mooy doomu ndayam ñoom ñaar lu ñu xeex ñun ñii sax <laughs> fekk nañ seeni xeex mais ñoom ñaar lu ñuy partagé ci àdduna du kenn ñu am nañ yeneen frère duñ partagé ak ñoom ñooñu foo gisee Ndiaga Thiam ak Balla Thiam ñoom ñaar ñooñu xeex nañ xuloo nañ ta nañ lu ne def nañ ko atte nañ leen maintes fois mais ay doomu nday lañ ñoom ñaar ñooñu ay ñoom ñaar ñooy xarit maanaam famille bi yëpp sama yaay ak ñeneen ak ñeneen ñaar ñaar ñaar ñii ñaar ñii la yàlla boole te dañoo xeex seen giiru dund moom mooy Balla Thiam ak Ndiaga Thiam ñoom la ñaar ñoom ñaar ñooñu nu ñu mel ñu ko keneen donc yàlla dafa yéeme te lu ñu xeex xeexuñu ko seen frères yeeg seen sœurs yi ne ñoom ñaar la yàlla boole benn def leen benn ngoo mooy njaga mooy euh, balla balla mooy njaga te <laughs> koñ bi yëpp dañ leen di gis dañ xeex nañ ba taay yàlla moom mooy def loolu donc pour vous dire vrai tey jii ñooy ay best gars la dañu tuddante nañ doom ñi ngi tuddante doom ñoom ñaar ku jur doom tuddee ko sa morom ku jur doom tuddee ko sa morom ñu <laughs> amour bu dul jeex donc ci biir prison bi même Cheikh Omar Diagne noonu la nekkee gaayanu Jomaay ñu bokk benn prison saa yu ñu yeewoo ñoo toogandoo waxtaan kafre partager échanger ay livres parce que am na ñu doon indi ay livre di ko jox ñoom Jomaay yooyu. Jomaay liir na fa livre Cheikh Omar Diagne lépp ba mu jeex tàkk Cheikh Omar Diagne ñi partagé te di gaayandoo nekk ay gaayand di génnandoo di waxtaan noonu la ñuy demee xanaa xamoo Jomaay ak Cheikh Omar Diagne kaso bee leen boole. xamante wuñu woon de doon ñu ànd de wuñ de foofu lañ doonee ay xarit foofu lañ ay xarit kaso bee leen def ay xarit kaso leen boole ñuy partagé kaso bee leen boole moo tax tey jii Jomaay bu mu faloo ku mu jël Cheikh Omar Diagne la jël pale la ko indi pare pale. jox ko bureau ba léegi seen jotaayu kaso ba moo moo am ca pale ba saa yu ñu wàccee dañuy toog di waxtaan ñoom ñaar yàlla boole leen donc ci kaso bi la leen boole mais Sonko mooy koo xam ni ak jomaay jàngal nañ doomu aadama yi ngor jom fulla fayda doylu muslu ci traitise soxor bon lépp jàngal nañ doomu aadama yi de les qualités intrinsèques doomu aadama doomu aadama ndax Macky Sall bu mu demee ba jommi jaxle yónnee pour ñu di baalu àq Macky Sall def na loolu baalu na àq moo tax sunk ak Diomaye wax nañ leen ñaar il faut pas foo ngeen def ko cër foog ngeen def ko cër Sonko ak Diomaye Sonko nee na baal na képp ku ko tooñ moom ku ko tooñ ak lépp loo ko tooñ te loolu mooy qualité wu mais loolu la képp ku yàlla may nga un noon la war a mel Serigne Touba lu ko noon yi deful Touba bi deful amul ci lu ñaaw xeto xeet façon bépp xeetu toroxal jéem nañ ko ba mu noppee ñoom ñëpp la baal moom xaadimal Moustapha loolu moo ko may garaat googu noonu garaat garab gu mage bu doomu aadama du laalati boo demee bàyyi pare parey lu ko ay doomu baayam deful ci ñaaw téef gisu ko luñ ko jiiñul ci àdduna amul dafa mujjee gàddaay dem Medina lépp fa la ko fekk tey kon kooku te bu mu noppee dafa baal ay doomu baayam yépp na leen baal naa leen Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam dafa baali noonam waaye Sonko dafa war a baali noonam ci luñ ko tooñ moom loolu mooy ñi yàlla baaxal ku bon rek moo dul baal ay noonam mu baal ay noonam moom Ousmane Sonko mu taxaw ci biir passé conférence bi mu def Grand Théâtre Esplanade ne képp ku ma tooñ ak loo ma mun a waxal man Sonko ce mangage baal naa la yàlla kontaan na ci loolu du lay musa bindal bàkkaar yàlla da lay bindal tiyaaba tiyaaba la ci am ak nit bu ko mën a mer bañ ko nangam nangam neel neel buñ demee tey jii ci plan wu tiyaaba yi Sonko am na tiyaaba képp ku ko mus a saaga ku mu mus wax lu ñaaw ku mu mus wax lu bon ku mu toroxal lépp baal naa leen mu dafa fekk Mouhamed def ko ay noonam Serigne Touba def ko ay noonam Baye Niass def ko ay noonam Limaamu Laay def ko ay noonam Maodo Malick def ko ay noonam ñoom ñëpp dañ ñoo ñëpp ak fu ñu jaar moo gën a metti foofu ba ci Nelson Mandela Nelson Mandela luñ ko dajal ci kaw suuf une lumière sant ñi di ko ko teg matin midi soir di ko tojloo ay xeer bu mu paree def ne baal na ay noonam moom Nelson Mandela donc Sonko loolu moy def grandeurum un esprit de dépassement bal say non yalla may le téyaa ba la ba paré protéger la malgré luñ la def loolu même chose le jomay fay wax bal na samay non mais nak dañ ci tek mais li nga togn sénégalais yi moy sacc sen alal triandé len këpp ay caisse tiré len ray len def ay marché armement indi ko lolou nak peuple nga togn lolou tooñoo ma sama yo nekku ci <laughs> loolu la songo wax lolou la jomay wax legui nak nafiq bu ko bëgg a jaxase ay non songo balena na non Sonko musul wax balena li nga togn sénégalais musul wax balena li nga yorel sénégalais donc lolou sénégalais la yalla ci bopam suñu borom subhanahu wa taala na togn boma tooñ ma waaye nee na ki nga xam ni danga tooñ sa moroomu nit nee na loolu munuma ci interagir loolu yàlla jeexal lay wax ji dem moo tax ma ne la ñu dellu encore ci Sonko ak Diomaye am diine lañ nit yuy liir kaamil lañ nit yu jàng alxuraan lañ wute nañu ñu ay borom bopp fas ak xar yi nga xam ne am jàngu amuñu xamuñu diine amuñu diine it Sonko ak Diomaye dañuy wone rek nit lii mooy diine diine lol la jàngale suñu borom subhanahu wa taala nee na yow mi bo ma tooñee baalu ma ma mais bo tooñee sa morom julit wala sa morom nee na boobu mënuma ci interagir parce que tooñoo sa morom nga tooñ te bobu atte ba bobu mom day don li ak li yalla ne mun naa baale bàkkaar yuma yu doomu adama def sauf bokalé bokalé moy manque de respect nga manque respect yalla nee na na bu ne bu ne mun na ko baale boo ko tooñee moom allahu subhanahu wa taala sauf bokkaale mais bokkaale sax boo ko baaloo arrêté ko yàlla da lay baal waa léegi yàlla di baale ñi koy tooñ ak ni mu day Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baali noonam Sëriñ Tuubaa baali noonam Baay baali noonam ngeen am ñenn ñu ne Sonko warul baali noonam ak war a baal ay noonam c'est très bien loolu la ma Nelson Mandela def moo ko moo ko moo ko may dayo bii kon Sonko li mu def noonu la te noonu la ko waxee nee na baal na ay noonam ñi ko tooñ moom ak niñ ko tooñee kum neex nag bañ a baale jomaay nee na baal na ay noonam kon loolu jàng nañ ci ay qualité wu doomu aadama ñu am diine ay ñu maanute mun a muñ jàngal jàng nañ ci loolu waaye comme nu ma la ko waxee nee nañ ci mais boo tooñee sénégalais nag loolu da nga koy gérer tribunaux yi la mais fu mu waxee tamit wax na lu leer yaakaar naa ni soxlawul sax di leeral daf ne c'est pas parce que dañ maa tooñ que war a waaxu affaire yi tarrr pour gaaw rek seen digg dóor tak tak tak tak pour ñu ne ñu kontaan non damay jël temps justice bu defaroo ñoom dinañ jël dossier yi képp ku def dara sénégalais dinañ ko regle xam nga loolu kon wax jooju leer na léegi nag comme ni ñu ko waxee Sonko ak Jomaay Diomaye Sonko da ko surprendre Diomaye n'attendait pas d'être un président de la République du Sénégal bokkul woon ci programme am boobu xamul woon ni yàlla def na ko ba pare moom xamu ko ci programme Ndem, comme nous ko Sonko waxee am na fu dem ab sëriñ <laughs> joxañ Diomaye <laughs> ñu naan sëriñ ngundu gars di day am <laughs> loolu day am <laughs> nee naa leen ànd naa ak sama njaboot ñëpp dana kii ñu xaw ma def benn dof ma taxawee nële mais sëriñ bi joxoon ma <laughs> même paa bi daa tiit sëriñ bi joxoon ma <laughs> sa sa sa doom la bokk paa oh, ma bëgg a nëbb moom dof parce que xam nga luñ gëm gëmuma ko ñu may nëbb sëñ bi ne gi la bokk oh, oh, waaw waaw waaw waaw waaw bu ko bu ko sax bu ko sax waaw waaw mu ne ko na jage si na jage si ñu ngi ma sànni ci ginnaaw maanaam ñëw taxaw <laughs> mu ne kii kii mooy kii mooy siiru siiru njaboot gi si xam nga siiru siiru njaboot gi lépp lu yàlla di may ci kii ko nëbb ci kii kii kii mooy siiru njaboot gi maanaam kii mooy sobe njaboot gi kii adduna yëpp dinañ ko xam te kii mooy sobe njaboot gi kii dina gudd fan dina dem demi màkk di ñëw te kii mooy siggil njaboot gi jàpp leen ci mais pourtant pa bi xalat won ni man man lañ wax mom pour mom yuusu lañ wara joxagn pour mom khadim meenee toog la ñu war a ñu sangu ba def solo ba tok toog sol seen gram bubu fokk ni ñom la ñuy mais dof ba lañ siit eh, këla la ke, la de ke ke te lañ ma joxoñee pa bi dama jege sil <laughs> alors kon nak yalla la ngay xép yalla fa lay duggal siru ba fa ngay xép nak fa ngay gëna xép fa ngay gëna xép fa ngay gëdul def dara nan li xol fa la yalla di def mom fa la yalla di def mohammed sallallahu alaihi wasallam ci njabot gu pauvre la baye ko da doon dem di sammi fa la yalla def bagage ya <laughs> yalla yalla du nit yalla du nit nit ni ñoy jël seen bop yi am ñu jël na calculer yalla du nit donc yalla ba muy joxoñ joma joma sax xamul te pourtant ñëpp sonko lañ ko sonko sonko sonko sonko dem ba dig bi di mu jamono affaire yep carte yep jaxoso kon carte yalla gi ñew calculu yalla gi ñew calcul nit yi bu mu jeexee parce que waxoon yàgg naa ko fi wax ci live nee naa ne yàlla nee na def leen seen calcul ba noppi boo leen paree ma def sama calcul loolu yàlla wax na ko mi ngi ci alxuraan mu ne am na secret boo xam ne maa ko xam muy benn lettre di ko placer maa koy placer fu ma neex def leen seen calcul ba pare boo leen noppee ma def sama calcul kon nit yi bu ñu defee seen calcul yëpp ne sonko la sonko la la plan A sonko la yàlla moom moom bu mu ñu noppee ba jeexal ba jommi ba jaxle yàlla dugal plan am ne man du sonko de jomaay la mais loolu yàlla dafa def ni mu dee na ko sonko parce que nee na ko defal joxal jomaay sonko bu muy def vidéo yooyu bay wax jomaay boobu kenn fekkewul néegam boobu la tëju yor ordinateur am boobu nangul kenn kenn kenn fekke ko jël defar ay defar ay seedeem dënk ay soxnaam na leen bés bu ma demee jimmi jamono boobu gars yi gis ñu woon loolu sax boobu ñu ngi koy barricade Sonko gi yëg na bu yàgg dinañ ko tëj wallaay billaay yëg ak ko yëg buñ dindee barricade yi fa la gën a Sonko day dugg ci kaso moom boobu la Sénégal yëpp dal <laughs> foofu la action bi foofu la waroon amee loolu yëpp ko yëg na ko moo tax mu defar bandam yëpp band yi sax tuuti ngeen ci déglu defar na plus de dix bandes lépp la teg lépp la teg stratégie benn par benn benn par benn boobu Macky Sall nee na ay nitam Jomaay du dem Sonko du dem waa Pastef du ñu dem mais Sonko pare na lépp boobu yàlla dee na ko teg jël Jomaay jiital gis nga premier calcul bi commencé woon nañ yàq affaire Jomaay di sàcc di kii kii pour pour Jomaay bañ a dem <laughs> mais yàlla di di forcer. ñu ñu ne jomaay matalul parrainage <laughs> ñu ne jomaay matalul parrainage sacc parrainage yu jomaay jaxase ne jomaay matalul yalla na leen man la le calcul bi man la man mané jomaay moo fiy toog te mënu leen fexe ba jomaay du fi tok man yalla ndem nit yi def nañ ba tout ba sonko demul mais man man yalla nak ma décider bu jomaay calculer ya sacc lepp xolal yalla ba baatare war carte gi xolal bu mu ñëwé jomaay mo ñëw premier coup dañ na jomaay demul ñu ne manqué la na parrainage deuxième coup gars yi gi sàcc yëpp mais teewul kenn mënu ko xeex parce que Macky mooy xeex yàlla mais yàlla woo ko woon boppam mais après jomaay moom mujjee dem léegi nag foofu la Macky Sall jommee Macky Sall jommi jaaxle xam ni fii ñàkk na jomaay dem na xëccoo naa ba dee mais jomaay dem na te Sonko Macky Sall waxoon na gaayam yëpp ne kenn ci ñoom duñ dem waa Pastef duñu dem ci lañ yónni seen gaa yooyu noonu ay Yérim Seck ma dambal Diagne ñu nekk ci média bi non duñ am sax 15 pour cent ñoo ñi duñ dem fenn ñoo mu ñuy magal parrainage euh, euh, euh, boobu Macky Sall ba ki nga xam ne moom mooy ministre de la justice Ismaïla Madior Fall wax na ko nee na ñooy Macky Sall daf leen waxoon ni benn waa Pastef du dem et c'est vrai daf leen ko waxoon mais xamul ne yàlla la doon xeexal ak lépp lu mu mujj a def yàlla moo ko daan léegi nag bu mu demee ba xam ni Jomaay dem na mu xam ni eh, gars yi renseignement généraux yi dem def seeni i investigation gis na eh yi dina dóor Amadou Ba ba toog ci kaw te ñaar moo am bés bu bañee victoire boobu ne da koy sàcc jox ko Amadou Ba dëkk bi dina génn deret dina tuuru comme pas possible nit yi dinañ dee comme des mouches te bu boobaa cour penal international lay mujj ci kaso bi. loolu moom gis na ko renseignement généraux yeeg généraux yëpp gars yi toog nañ wax ko na ko fii. booy forcé di dee di nga rey gaa yëpp te yow da yow tamit sa àdduna lu la desee yëpp da yàqu yow ak sa njaboot c'est fini mais Macky Sall a bien compris léegi nag moom la wax ne bu mu wax benn renseignement généraux bu mu ko waxee loolu Macky Sall na ko waaye looy wax li nga wax ne foo ko teg wax fi dara gën la sama kooku dem yoonam mais Macky Sall dafa toog guddi affaire bi di yëngal yuuram mu jël téléphone woo waa ji na ko kaay waji ji mu ne ko waaw daal dag may expliquer foko tek waji jël ay dossier yu taxaw tek ko ko général bi tek ko ko ne ko mi ngi ni boy dem jomay mi day jël élection yi té bo forcé nan da ngay duggal Amadou Ba ci ngay dé ndax di nga ray Sénégalais yépp yépp mais bom ci la commencé Macky Sall nag di commencé di wacce bagage yi di di seddal xaaral ma dugal amnistie xaaral ma dem uh, uh, waxtaan ak gars yi xaaral ma nangam a nangam ci la yónnee xam naa Diomaye dafa Macky Sall dafa yónnee waaye gis na foofu moom gis na bu mu yónnee bu ñu ñëwee ci Sonko mu ne Sonko moom Macky Sall bu mu yónnee ne Sonko léegi xam lu ma bëgg comme Diomaye dem na nañuy waxtaan li ñu waxtaanee moom man xam naa ni tooñ naa la. man nag information yu ma doon jot moo baaxuloon dañoo ñëwoon di ma wax na ma danga may défier danga ma bëgg a rey danga may nangam ay fen yi fen fen fen dem naa ba gis ni lépp ay kàcc la xam naa ne maa la tooñ maa ngi jéggulu loolu moo tax Sonko ne jéggal na Macky Sall moom ci lu mu ko tooñ moom ci fen yu mu ko fenal ci nu mu ko sosalee ci nu mu ko takkalee ci nu mu ko téeñalee lépp ko ne baal na ko lol moo Sonko si vous bo len xoolee discours Sonko nekul di xas Macky Sall ci mom ci mom ci ci li ko tooñ nekkatul ci parce que moi, baal nit ba pare sax gis nga lu ma fi defoon gis nga lu ma fi defoon gis nga gis nga ma gis nga ma sa way baloko bo balé da ngay mais bal ba pare fo tol na ko ah, bu ma fi ñopaté bu ma fi maté bu ma fi bu ma saga bu ma jëw <laughs> donc mom balé kooku moom baalewul donc comme deme na noonu Macky Sall dem baalu ko yónnee kooku dem yeggee ko ko Macky Sall na ko léegi ñaar moo am sa waay bugg naa organiser ay élection mais comme tooñ naa la génn la par force ci list électoral yi jaay la doole dama laa bëgg a delloo dama laa bëgg a delloo li ma la tooñ loolu du protocole protocole bu ngeen di dégg nii gars yi ñenn ñi ñoo leen di foowee rek protocole de Rebeuss loolu Macky Sall euh, Ablaye wàdd ak Idriss Seck ñoo doon waxtaan pour après mu bàyyi ko après moom mu toog loolu mooy <laughs> protocole protocole ay waxtaan la ma bàyyi la nga toog fii bàyyiwuñ kenn mu toog fii bàyyiwuñu kenn mu élection lañ demi saf saf dóor ko bàyyi leen fooyee mooy ñu ay magum jëmm lañ magu leen ñoo ëpp leen ñu xel fekke nañ protocole de Rebeuss fekke nañ protocole de Conakry ba ñu demoon Conakry caaxaan da ko bàyyi fii benn protocole amu fi amul kaay ma bàyyi la loolu Sonko da ko rejeté parce que Macky Sall bu mu ñëwee di baalu di jéggalu ci li mu def ba pare ne ko damaa bëgg dindiwaat processus électoral bi yàq lépp ñu demaat defaat léegi yow mu indi la ci liste bi mais loolu yëpp sonk ne ko loolu c'est beaucoup de temps non non amul loo fii bàyyi amul loo fii bàyyi amu fi amul ay dello ay élection amul ay arrière ay élection amul reprendre processus électoral ça c'est de l'argent tiaxan la loolu la ko Sonko wax ay tiaxan la amul reprendre amul tous nañ dem ci ay élection ku mën sa morom duma loolu la ko Sonko wax nak man woluna jomay peuple bi wóolu nañ ma ci la audio yi doon ñu commencé tek audio yi ñëpp di ko ban protocole am fofu ban protocole lan moy protocole protocole moy négociation man négociation moo am foofu day am ay dëmm dëmm lu dul naa li si toog na protocole da protocole ko kat lañ kàcc kat amuñu benn information kàcc kat kese lañ bugg a fooyee sénégalais yi sénégalais ëpp leen maan gën leen a nekk nit mais ñàkk juddu gu bon am nekk ci juddu gu bon moo tax ñu génn foog ne ñoo ëpp nit yi xel ko protocole de protocole dañuy kàcc dañuy kàcc protocole Macky Sall mo doon bëgg indi protocole Sonko rejeté son protocole protocole bi moy nañ arrière élection yi processus bi électoral bi ñu dindi ko commencé wat à zéro wat la ci liste électorale yi ñu ki nga dem élection sa way na ko zéro baaree ko leçon fat faaj faaj bugguma protocole kaañ dem élection wolu na sama sama ndaw bi eh, ana protocole ba caaxaan kat lañ ku la ci ku nekk yaa ngi nekk ci tale yi di dëmm dëmm lu di xool koo nax boobu boo leen gisee ñuy wax te amuñu information nag dara amuñu ko mu ñu toogee non lu ma ci xam non lu ma ci kii non non dama ko maîtriser damay naaw man xoolal gis nga journaliste bi ni may defee man damay plonger dam au fin fond gis nga xëcc affaire day kàcce day kàcce xam tus xam tus nga dégg kii nga xam ni fii laa taxoon di sonnal Macky Sall moo laa mërgën waaye yow booy bi mais dem leen jëli ko mais nañ yónnee force commando bi mu naaw force commando mun na dugg Canada extraire ko génne ko dugal ko mais booy bi naaw bi <laughs> mais il n'a rien compris te ce même type mi ngi ci télé ba léegi di wax ba léegi muy wax am ay nit yu ko mën a déglu wala wala di jël ay waxam kooku dof dof weesuwu ko lu day ni Canada mu ne na Macky Sall yónnee ay commando pour ñu dugg fi introduire ci dëkk jambour di extraire ab nit diko duggal diko yobbu nga xamni koko kooku man ba mu waxee loolu la xamni ki mom moom xaaral ma ko aux abonnés absents ba ba yobbu ko ci dofi depuis bobu mi ngi ci enclo dofi bobu la ko tej ba légui dalal xel du ma ko fekk muy wax ma dégglu ko du ma ko fekk muy wax ma ubbi ko ma mi ngi dalal xel mi ngi faju ba légui tant que fajuñu ko ba mu wér du du ko dégglu il faut mu faju il faut mu faju impérativement mu faju ay wax waxi dof rek lay wax kooku ngay dégg mu toog ci télé yi naan ay protocole doon dama ci xam dama ci natt dama sa da dama ko maîtriser kàcce rek fenn rek ay journaliste la journaliste mag la nga man bu ma la xasee ba yóbbu dalal xel wala faan pour ma génne la fa foog nga teg lu dëgër kacc pour ma mën la sinon booy yëngu ma ne dugalaat leen ko internet internet donc loolu protocole boobu Macky Sall moo ko doon jéem a indi Sonko rejeté ko catégoriquement loolu moo yóbbu jomaay encore am na lu Sonko wane foofu Sonko wane tey bu fekkoon ay intérêt crypto personnel moo ko yóbbu mais Sonko dana waaw Macky arrièral affaire yi en attendant ñi kii ma ñëw mais waa jooju mooy gor billaahi Sonko mooy gor lekkukatu pigeon boobu ak pentade ak gore ñaari yàpp yooyu ak ko bëgg nag pentade ak pigeon man moom man añu man mom boo ma yoree rek euh, lakal ma añoo moom woo lo ci def mun la ma japp bobu rek momu gënal ceeb gënal ma suppu kaaña gënal ma maafe maintenant waji bu mu ñëwé indi protocole am ba dañ ko rejeté <laughs> magal Sall dañ ko rejeté légui nak ñu yobbu Sonko ak jomay jomay dem élection yi Macky Sall lan la munoon def ci la profité def ay amnesty bi loi ñu ñu voté ko assemblée nationale mu génn gars yi génn teg ci kan lañ njëkk ku njëkk a araftu <laughs> boobu fekk na Macky Sall bàyyi ku njëkk araftu Amadou Ba eh, eh, eh Amadou mu ne Ba non na dal na wàcc na dal na dal waaw xuus xaas na wàcc na wàcc na wàcc xamante nañ de <laughs> mu waaw na dal ci la Amadou Ba jaxasoo paniqué. munutul def ay tournée mu yak tournée ba commencé di ben ben ak Macky Sall dem na fa jëluma ki ma nangam naa boy ñaari boy ñoo tok tas na dal na dal na dal na wacc waaw tas tas rabax mba nam na xuus xuus xam nako gaay do na dal na dal na dal waccel da wàcce mu wàcce ko may leen jamm gaay ñu ñëw ko ay coup yo xamni coup mortel ba léegi jogugul ba jogugul de moo wax mu naan non samay booy lañ quoi bugguma xam nga samay booy lañ samay élèves samay élèves samay élèves yoo xam nga yow moom xaw ma kuy opposé wu moo tax fu ne ni opposition ko biir bu daw Sénégal amuñu amuñu euh, chef de l' opposition Amadou Ba la mais Amadou Ba dañ ko sama gars dañoo këf bagage ci suuf di boxoñ te <laughs> dañoo génn rek këf é jomaay ak Sonko gaaw Sonko ni roof taf dugal loxo bi rek xëcc bu gauche bi paire gauche bi ne teg nag jomaay dugal rek tak tak droite bi ñu téye peer yi ci suuf ñaari peer yi ku ne téye na ko waxal wax rek boxam wax boxom de wax boxam boxam caaf boxam boxam leen moo tax mu ne wuut xul xulli bëdi nu nga gis xulli dañoo këf ci suuf dañ ko këf ci suuf moo tax mënul buuse ñaari doon yooyu lañ jël ba suñu jon yàlla ne coo kuuj kamet ta léegi nag comme amatul chef de l'opposition parce que chef de l'opposition ba gars dañoo këf bagage ah, ku ne téye léegi nag moo gëj taxawaalukat yi seen errant yi di génn ay bookum ab dof bookum bu nga xam ni euh, bu mag bu bu ko euh, kii Idrissa Seck waxoon dayal mu day fii taxawaalu ba tag ay bookum bu amul benn argument ay ay ay ay taxawaalukat seen errant yi mel ni ay euh, lu bugaan buy taxawaalu <laughs> opposition moom jeex na opposition jeex na parce que ka ka ko waroon jiite sax moom ñëw ko fay bagaasam ñi léegi nag ñi ci des nag mooy mbalit mi mooy mbalit bi dégg naa boo ko naan day fi génn ak kee naan day génn ak <laughs> ay ñoo xam ni seen baay Idrissa Seck sax ñimewul Sonko lekk katu beñe bi bu mu ñëwee ci weeru koor ga <laughs> di xaaraan beñe beñe du ko <laughs> kon bokkum bi nga xam ni bu gisoon Idrissa Seck day day tubéem di raam aka maral ko ay dàllam xam nga ne bu ñu demee ba jimmi jamono mu bëgg forcé naan pour chef de l'opposition day day daa màndi rek mais bu bu reesee rek mu nekk nit daa màndi mais bu reesee dina nekk nit na dem laaj ki dañ tëb tëb di dal fii bañ def ko maire de ana anamu cocc la def cocc ku xam Sonko doo ko yab mais nag boo nekkee ab mbalit ab ab taaxuraankat taxawaalukat nii xam nga wëndaalukat vadrouillant ku ci mel ne ay bugaan ak yooyu da ngay fo ñu lay jaay ngay cop man <laughs> bu ma gisee <laughs> réew mi dafa neex yow dafa ne mais ñi xam dëgg ñi jege ñu app ku musa approché Sonko nii ngay def ba mu fi toogee ba léegi moo ak jomaay cocc cocc cocc Barthélemy Dias leen gën a réew fuuf te cocc la def cocc cocc kon nag buñ gisee ay ay taxawaalukat yi di tëb di dal moom garaaw donc comme niñ ko waxee c'est vrai que ba léegi sax man pour man loolu moo fa ne Sonko ak Jomaay ay gaayen lañ Sonko nag boo gisee foo ko gisee mu taxaw ak Jomaay Sonko dafa mun a kaañoo Sonko la <laughs> dafa mun a kaañoo <laughs> moo tax Jomaay <laughs> bu mu concentré wu Sonko reetaan loo Sonko dafa mun a kaañoo de ay yu sew la lay dóor comme genre Ronaldo la wala Messi danaa nii rek ngunu ngunu foo costume nga de rek Jomaay ngax ngax moo tax foo leen gis dañuy ree te Sonko mooy rof tàngoor dafa mun a tooñ dafa mun a tooñ noonu lay def gis nga Sonko nu muy def opposition bi noonu lay def jomaay Sonko ak <laughs> nga sari day toog yaa ngi rek mu ma yëngal gars kon xaaral ma yëngal ma day génn rek am benn discours mu ne nga gis nga gis opposition bi génn ah non Sonko non il est yow la euh, oh, oh, oh. dafa mu tooñkat la day rokos taf lay def taf taf taf rek nga yëg oh, oh, sa tuut ngi di métti oh, nga mel ni xaj mu toog fee rek <laughs> boo ko fekkee gërëm mu ngi toog yéen la waaye bus konsorong bi <laughs> dafa muus dafa xam nu leen di cuqee dafa xam nu leen di ñuusee da ko xam yàlla moo ko may dafa am ay talent yoo xam ni sungu boo leen toogee du noppi doo doo noppi da ngay ree dafa xam dafa dafa bandi la quoi bandi cerveau la bandi <laughs> cerveau la mooy mooy booy booy tooñkatu koñ yi booy tooñkatu koñ yi la booy tooñkatu koñ yi boo yooyu la xeex xeex ci faro yi xeex ci faro yi yàlla da ko may nag mun jàng am xel mais di vacances day ñëw Casamance di xeex ci faro yi di combat gars yi di dem ci di dem ci àll bi di di bay ay ceeb ak di dem sax ci mango di di di di rëbb ay pitax ak di yooyu la yooyu <laughs> yooyu la léegi nag dafa xam cas cas gi nan laay ñuusee ñii te du ma leen laal moo tax fu ñu toogee rek mu yëngal fa rek rek bàyyi leen dara ñuy ñuy seeñu yax bi di mer di funke waaye yow sawaay moom ma gën a fen man gis nga ah, man gis nga man gis nga sàcc ma gën a fen sàcc ma gën a fen bi léegi wala waaye zen rof na leen tàngoor ñuus na leen toogee ne di ree ne gars yi fopp ñi ngi funki di daya ko doxat di di funkee ko reesal mooy waa ji cuus na leen ko ba taxaw ñoo tax Sonko leen rey balaa cinq ans ñoom ñëppay faatu maa la wax loolu tak takk leen te bind leen ñoom ñëppay faatu ak xol bu bon balaa cinq ndax ni mu leen di def du leen bàyyi nag te du leen bàyyi de kenn mënul fexe ba mbàyyi da leen di mbalak ay mbalak yoo xam ni di leen benn benn di leen caw sa xiir caw caw caw bàyyi leen ñu saw seen tuba yi saw seen tànk yéeg yëpp mu taxawee na leen nii la leen nar a def nag ba rey leen ñoom ñëpp ci xol bu bon di la leen rey ci AVC ñoom ñëpp ay dee ñoom ñëpp ay dee maa la wax loolu léegi du yàgg léegi nga gis kan di di dee ba benn yoon bés bu ñu xamee Sonko dëgg dëgg dëgg dëgg te dañ koy may jàmm parce que dañuy xam ne waa ji dara safu ko dalay rey léegi dalay rey ak xol bu bon dalay tuq di di la def loo xam ne il comme sa yàlla moo ko may loolu noonu lay def même jomaay loolu bàyyil sax jomaay saa yu jomaay waree voyagé bu ñëwee bu ko dóoree loxo eh, waay da ngay tooñ ñoom ñëpp <laughs> eh, sa ngunu ngunu daal kiire si ba kii rek ree xam nga dafa calme nag jomaay dafa calme jomaay <laughs> foo gis seen 32 <laughs> daay sa waay koy tooñ su ko doy roof tàngoor dafa mun a roof tàngoor du bàyyi dara <laughs> donc loolu yàlla moo ko may qualité la qualité qualité dirigeant xam nga koo xam boo duggee kër da ngay kontaan moo tax gars yi bi dee nañ bu yàgg nu leen song te tàmbali trois mois ku ci nekk sa xol butaan gaz na bugaan gaz bugaan gaz mooy butaan gaz butaan gaz bugaan moom butaan gaz la tudd boo déggee butaan gaz rek mooy bugaan bugaan gaz butaan gaz day butaan gaa seen xol yi di tàngal seen xol yi ñuy ñuy lekk seen xol yi di ko wannaat di ko lekk di day ñàkk tooy xàpp xoolal stressé wu mer di di funkee comme bañ dugub waa ji mi ngi toog dee te bu ñu paree mu rokaat mu dóoraat bu ñu paree mu dóoraat noonu la leen ko nar a jàppee di <laughs> laay di naray doomu jàmbur <laughs> xam comprendre nuñ ko rek waa ji mbalakkat la dafa mun a mbalak dafa mun na bu liggéey jotee liggéey mais bu taxawee nii pour mbala gars yi ah dañuy opposé wu kay oppo dañuy opposé wu <laughs> dëgëruñu léegi mu ray leen léegi mu ray leen noonu lañ ko nar a toppee ba mu éliminer leen ñoom ñëpp ci tooy buy bisaab saaba kel moom buggaan yaakaar naa ne moom lay fanaanoo buy bu saaba kel te dawul demul foo ko fekk mi ngi tooy xat ñàkk tooy xat mel ni ku feebar bu Sonko génnee rek nokkos nokkos rek nokkos rokkos taxawee na la <laughs> donc donc bu ngeen xamee ko noonu mais ay nit ay nit yu juble ay nit yu ñu jàngal yu ñu jàngal qualité waaw Sonko mu dara safu ko yu ñu jàngal qualité ay nit yu ñu jàngal qualité lañ sama genre gii la loolu da Sonko man dama koy xool sama bopp man sama genre gi la damay wax damay wax dem sama yoon tëdd di naaw ndakate ka may waxal moom ma ngay waaj a xaru ba nañ may yee ci kii ne ma ka nga doon waxal sànq ah ma ngay waaj a xaru fekk man ci nelaw lañ may fekk may <laughs> yow yaa mujjee daw dem jëli ko waaye saa looy xaru yow lu ma la wax li may foo <laughs> dafa doon foo fekk da doon waaj a xaru <laughs> yooyu nag dafa am ñu mel noonu man noonu laa mel ma toogee sama gars yi des fois nga wax loo xam ni ba dem sa yoon foog ni xoolal dem di nelaw fekk waajaa ngay waaja xaru xol baa ngay dagg mu nga tey non boo toogee woon non non danga ma danga ma dafa metti nag non dama dama dafa metti <laughs> ba da nga <laughs> ko yërëm non mais dama ci kanam yàlla fekk xolal fekk da doon mbalak <laughs> man noonu laa mel sama gars yi des damay wax jotaay jotaay ga laay tas waxtaan ba nu may fooye diine ndakate am na ñu yuy funki am na ñuy waaj a xaru ji am na ñuy waaja a tëb miir daanu ci balcon dee ndax daw <laughs> loolu la Sonko mel dina leen rey ñoom ñëpp <laughs> dina leen rey ñoom ñëpp ba ñu jeex billaay wallaay wala ñu teel ko comprendre rek am jàmm may ko jàmm toog fu ñu toog ne ah <laughs> waa ji nii ma ngi ñuy mi ngi mi ngi tàngoor donc ñoom jàngal nañu ay qualité jàngal nañ ñu ay nit yu dal gis nga Sonko Sonko nguur yittalu ko nag te waxoon na ko lépp Sonko waxoon na ko boo demee ci vidéo mi waxoon na ko nguur yittalu ko jiitalul nguur nguur newul ci bakkanam comme nu mu nguur nu mu dayee sa Seck gisa gisa ñu bëgg nguur dëgg dëgg dëgg <laughs> yàlla du leen ko may sa Seck ku ko newoon doo doon président billaay du ko gëmee moom defoon na ci boppam président ba pare ci biir bopp bi moom président la doonoon ci biir bopp bi ba pare ba taxaw reyante bay bëgg de yàlla nekk ko fa ñukk ne yàq bu naqari yàlla ne fa ñukk ne yàq bu naqari Idrissa Seck ba suñ doon ba màgget na musu ko doon Khalifa Sall demoon na ba xëccoo ak euh, euh, kii nga xam ne mooy euh, Tanor Dieng xel mi yëpp président moo ci newoon Khalifa Sall jàppoon na ci xel mi moom président la dem na ba màgget ba am soixante et quelque doonu dara gis nga bukaan mii xel mi président moo ci ne dina dem ba màgget ba faatu te du ko doon du ko mës a doon fii ñooñu nag la yàlla di gën a toroxal parce que ñoom dañoo jàpp ñoom ñoom dañoo jël président rek def ko seen bopp bi jàpp ne ay président la ay président lañ déjà <laughs> boo taxaw rek taxaw rek gis ni ñoom président la ñuy doon moom la ñuy doon xaw ma ku leen nax duñ ko mës a doon duñ ko mës a doon seen àdduna loolu mooy seen problème loolu moom moo leen sonal kii nga xam ne nag moom mooy chef de quartier sax duñ ko doon kii nga xam ne nag mooy jomaay moom xaarul woon loolu jomaay 111 bi bi ko ko Sonko di ko yëgal ci prison bi la <laughs> aka wax dëgg nag aka jomaay aka wax dëgg gis nga bu bu bu bu Sonko décidé jomaay ba jiital jomaay foofu lañ toog ci kaso bi ñoom ñaar gis nga loolu la leen su jomaay di wax noonu gis nga seen toogum kaso boobu xam nga kañ la mooy bu bi ko bu Sonko décidé ne jomaay lay jiital te boobu ñoom yëg nañ ni Macky sàll ñëw na ba wax li muy wax foofu la jomaay nag ne affaire bi nag ça commence à être très sérieux ci la woolu woon Sonko ñu may leen ñu toog ñoom ñaar dañ leen doon moom dañ leen dañ leen doon xaw a dawale quoi ñoom ñaar dañ leen doon dawale Macky Sall da leen doon da leen doon moytu wal doon ñu gisante fu ñu duggaloon Sonko Sonko Sonko pale lañ ko dugaloon foofu moom ñoom jamaay bokkuñu de jamaay jamaa nga ca paquetage ba jamaay paquetage ba la nekkoon Sonko moo nekkoon fi fi fi kii tabaxoon mooy ancien président Tchad ba fu mu tabaxoon foofu lañ yóbboon Sonko Sonko am lépp jamaay amul dara jamaay paquetage la nekkoon <laughs> di dàmbaloo Sonko ñu yóbbu ko ca high level ba mu nekk fa donc Sonko pour pour Diomaye gisoon ko audience la day demander audience président euh, prisonnier boo xam ne boo pour nga gis ko euh, da ngay demander audience donc Diomaye doonul gis every day fu après tabaxoon foofu la Sonko kese fa nekkoon Hissène Habré fu mu tabaxoon Sonko rek ka fa nekkoon lal yu nooy lépp foofu noonu ay milliards lañ ko defee ay milliards lañ ko tabaxee les Nations Unies et euh, l'Union européenne ak sont tabac. parce que Macky Sall encaissé pour fa ils ont en prison Hissène abré fa ci Cap Manuel la paquetage n'est-ce pas Maintenant, si bi nga que Jomai est Sonko def pour mu il a tout fait Cap Manuel il a tout fait pour mun a gis Sonko pour wax moom parce que moom xaarul woon loolu bu mu waxee ak Sonko daf ko xamal ko ne man yow laa jiital foofu nag lañ toog wax wax lu ñuy wax ñoom ñaar wax lu yaatu wax wax lu yaatu ñoom ñaar ba échanger lépp lépp tout te ma waxal leen encore ne leen bi nga xam ni jomaay yéene googu mu amoon ba léegi moom la am moo tax jomaay munul xatal sonko te jomaay du mus a jàppanteeg sonko ñu bàyyante munul ne c'est impossible kenn munu ko xaar te te sonko gorom ngorem sonko moo gore sonko sonko moo gore dëgg dëgg sonko ñaan yàlla ku nekk war nga ñaan yàlla am xarit bu mel ni sonko sonko moo gore bi Diomaye ñëwee ne ko mais non mais man yow lu tax nga def ma ah, euh, euh, jiital ma ci affaire yi xam nga te kiiwoo ma Sonko ne ko yow yaay jiitu yaay premier plan bi te incha allah yàlla dina ci def jàmm ñu waxante nag lu ñuy waxante ci kaso bi foofu lay wax ni ci laa doonee nag laay nag nañ doon xarit léegi nañ doon xarit maanaam nañ tafoo nii nañ jóge ci amitié camaraderie léegi nañ doon xarit nag xarit nañ nañ def nii nañ def nii nag nañ doon xarit maanaam fu ma dee na fa dee loolooy xarit nag <laughs> loolooy xarit xarit sa xarit munul dee de doo de fu fu war a rey sa xarit war a rey boo leen àndee parce que xarit nga wax ah. xarit boo leen tàqalikoo wee nii nga duguru gi boo ko joxee paa bi bu ko yee beneen bi meer bee war na ko mun a yee kon fu kii dee ki war na fa dee fu kii dundee ki war na fa dund loolooy xarit xarit loolooy xarit waxuma àndandoo nag ñu jóge daal ci ay collègue ak ci ay kii ñu signé foofu seen pacte nag nag léegi nag léegi fii nag ñooy ànd ba dee ñooy ànd ba dee foofu la ñu signé pacte boobu ah man de li ma la mus a wax nag booy da nga koo fekke man maa ngi Canada te musuma laa wax luy deñ <laughs> loolu boo ko boo ko posé question nag moom dafay dama yaakaar ni waa APR nga dama yaakaar ni waa APR nga man mii wax ba wax Macky Sall yaayam ak njaboot seen njaboot yu fay Sall timboo nu ñuy xëccoowee ba nga gis ko lu ma la mus a wax dégg nga ko gis nga ko te fekke ma maa ngi fii Canada <laughs> kooku kay nag boo ko boo ko kiyee rek waa Macky Sall nga wala nga nga bon rek <laughs> te xalaatuma laa defar man de lu ma fekkewul fii laa ñu un gendarme ponkalum gendarme bind livre ci gendarmerie ne mais ce boy laa la moo laa Morgan la mais mais il était mais il est plus informé sax que que les que les informateurs spéciaux de du palais <laughs> man lañ wax de kooku saxalu ma ko lem de xawmako sax c'est c'est un général un un colonel de l'armée bind livre xam mo taxaw fi ne mola laa Morgan la le boy là qui est là-bas là. Non, mais il est, plus informé que les, les renseignements spéciaux. spéciaux. je suis <laughs> man man ma la waxee vous da nga non bul euh, bul sax ci ma ko samay gars koy Il Ousmane de kay ci ba dama vous wax Ousmane football doomam bu jigéen doomam bu góor ñu ngi football ak moom <laughs> dugal lañ fa dugal lañ fa euh, lu mu tudd vélo vélo mi ngi entraîné mi ngi ci jàmmam salaam mi ngi foofu mais Sonko bu may wax sax am na ñu doon xëccoog man fii naan Mollah lu muy wax ni euh, euh, non moom Mollah boobu ñu ngi naan ay Sonko mu dee Sonko daa nga nangam fekk man xam naa lépp def te des fois ñu jël ma ci suuf Mollah bul gaa wax yooyu bu ko gaa wax baa ñu baa ñu nga ñu ci kaw loolu laa doon jàppante gaa te man damaa dëggu mënu ma nëbb dëgg moment bi ñu naan non waajaa ngi waaj a dee waaw waaj a dee fekk waaj a deewul foofu loolu yëpp ci kaw la fekk waaj a waajul dee mais bu ma génnee ne waaj waajul dee gaa yi xëccoog man non non ki lu wax di fekk maa wax dëgg de maa wax <laughs> tàngal ci kaw la rek waaj waajul dee de. def nañ ko fi maire bi dem seeti Ousmane Sonko ci hôpital bi gisu ko. ñu génn ko fekk muy waaja jox ko tàndarma bi ah, gisuñu ko gisuñu ko ma génne gisuñu ko de ñii di conférence yi gisuñu ko de ñii lay waaja de bu mu ñëwee docteur bi moom moo leen ko wax moo ne non moo ne Sonko bu munoo leen gis munoo leen gis ñu delloo leen ñu def conférence ci saa sa ma jox ko tàndarma bi mu sànni ko ne du ma lekk tàndarma bi di waaja de ma fekk mu sonn billaay gisuñu ko sax dañ leen joxaat rendez-vous le bu ñu toogee c'était le mardi xaw mercredi le vendredi lañ ñëw lañ koy doog a gis doog a teg tàndarma bi boobu man rof naa leen ko tàngoor après lépp feeñ <laughs> parce que ma damay jot information yi à deux cent pour cent bu tàng jër bu wow koŋ koŋ koŋ koŋ ci original ba ci original ba ba wax leen ni ñu toogee ku ci nekk ni nga tëddee Hannibal hmm? Jim nga teg ci euh, ki nga xam ne moom mooy Eh, eh, eh, Cheikh kii waaye sama doo sama sama sama xarit après Sonko ci biir <laughs> loolu man maa leen waxoon placement yi wala da ngeen fàtte Cheikh Baara Ndiaye andi baal jim Cheikh Baara Ndiaye Sonko tele bi nekk nii mu mu am ay genre ay miir du miir sax ay ay kii la ardoise yooyu yuñ peinture ci diggante bi <laughs> ku leen ko doon wax dama nekk maa ngi fii di télé ba nekk ñoom ñi gisandoo télé bi Sonko yor affaire bi di ko di di di commandé loolu bu leen koy wax ñoom ñëpp a ngi ci ñoom ñëpp a ngi tëdd seen lalu hôpital yi <laughs> ñoom ñëpp a tëdd de anibal ji ma ngi tëdd seen jabar bu ñëwee man leen seen ñëw nañ de génn nañ léegi jabar Sonko yi bu ñëwee man la jabar Sonko yi nañ léegi de ñu ngi léegi lañ fa génn ñu noonu ànd nañoo Cheikh xaw ma Jibi Gay Njaay te seen tur yi sax du ko jàpp Jibi Gay Njaay ñu ngi doog a génn de dem nañ de ñu <laughs> sampal nañ ko perfusion de ça va ñi ngi toog ay comme ay caméra am junni junni renseignement généraux yu ñuy renseigner junni junni junni junni junni ñu ñëw tuur fa ay policier gendarme ay tenue en civil ñu ñu woot track moo laa am na renseignement généraux tuur nañ leen fi ñu ngi fii junni junni renseignement lañ yore woon junni junni quatre portable quatre portable junni junni renseignement généraux trak allo tak tak tak ah dugg na yow génn na ah ok ok lu mu sol ah d' accord Sonko dina ah, ah jabari génn nag tey kan moo na lépp laa doon jot tout tout one hundred dara umpale wu ma moo tax man ak Pape Alé wan na te yàlla dañoo dañu yàlla moo ñu boole man ak papa Alé tay lañ koy doog a gis bu mu fallo ni ñu gis ma taxaw mais xamuñu ni man ak papa Alé dañuy on se partager tout on se partager tout on était au summum de l'information au summum de l'information té réro wuñu on se partager tout tout ni jël téléphone am ñuy waxante waxtaan waxtaan dañuy kontaan parce que on a l'information on a l'information à 200% on a l'information à 200%

Aliou Théna mi ngi waaj a dee bi oh, oh, dëkk bi ay so ay Sonko léegi ñu rey ko eh, gars yi génn taalaat tuuti booyal leen booyal leen gars yi booyal mu tàkk sànni leen cocktail yi na jóg jóg jóg Sonko ay waaj a loolu yëpp ñun ñooy toog di ko liggéey ñun ñooy toog di ko liggéey wan bàyyi wan wan bàyyi wan fippuloo gars yi xartal gars yi ñu taxaw révolution bi yëpp dañ ko yor di ko gérer di ko tenir en haleine xam fan la ñuy koy joxee fan la ñuy dalee benn information fan lañ koy yëkkatee lépp dañ ko liggéey liggéey ba tey fii ñu toll nii dañ ko liggéey luñ ci war a wax luñ ci war a wax luñ ci war a noppi lu luñ ci war a def nii pour mu fippuloo lépp mais comme lu ma fu ma bëgg di ñëwee chaque jour sonko ku gore la sonko jàmbaar fàq tëdd la nit boo xam ne c'est un exemple bu ñu war a jàngale bu ñu war a jàngale Sonko lu tax wax loolu mooy gis nga Sonko ak Jomaay billaahi kenn obnubilewul ci ay mbirum nguur kenn kenn ci ñoom ba ñu demee ba ci biir Sonko jël affaire jox Jomaay ñi gagné pouvoir bi kon Jomaay wax na leen ko Jomaay deux jours mu dem këram ak otoom après ñi gérer affaire euh, pale bi ñëw xamal ko ni koñ bi moom munul nekk munatoo fi nekk nangam ak nangam ak nangam mu dem azalaay mu dem azalaay jege azalaay dem King Fat ma wax leen King Fat man mi waxoon leen ni King Fat ma nga King Fat ba dóor renseignement yi dugg King Fat ne leen caméra ya tel tel ba ba bu buñ koy changé moment bi ma defee alerte booy daa la waxal dara rek sama alerte yi quatre-vingt-dix pour cent gars yi dañ koy jëfe awma nag temps di wax dara di ñëwaat naa leen def nañ barki alxuraanul karim quatre-vingt-dix pour cent ci li ma leen di wax gouvernement bi dañ koy appliquer application bu mat sëkk il ko très bien et attentivement attentivement loolu moom man xam naa ko te gis naa conséquences yi ngeen m'écoute attentivement te lool du ñuy sax ba ci Macky Sall ca ca ca tàmbali ba bëri na li may wax ci saase ñi dem lijjanti ko ci saase mais duma ci nekk di ñëwaat ay kilifa lañ ñëwaat noonu di gàggante ay kilifa ci mbedd wax naa lii def nañ ko non non non damay romb parce loolu dama ko xeex pour ñu def ko dem nañ defi ji ko ma jàll ci leneen. ba ñu duggee King Fahd ma ne leen ñu nga King Fahd ba ñu commencé di indi ay renseignement ci King Fahd di kii nanga ma ne am yu ñu def ma ñëw wax leen li nekk King Fahd def ci live spécial ñu mbër moomu nga xam ne moom lañ fa tegoon mu doon garder Amadou Ba ñu jëlee ko fa ñu ñëw indi ñi nga xam ne ñooy GIGN bib yi ñoom ñoo géré woon après caméra yi dugg nañ fepp li lijjanti lépp jour bu yi di génn di woo gars yi di liggéey foofu na ana gars yi nangam ak nangam ñi ñi ñi nekk foofu King Fahd sax ñëwuñu woon maanaam dirigeant yi samedi boobu euh, avant tabaski deux jours avant tabaski samedi lundi lañ tabaski non euh, lundi waaw deux jours avant tabaski la fa génn bu mu génnee toog woo gars yi waxtaan ak ñoom kafre ne leen maa ngi dem merci beaucoup nangam nangam ba bu muy dem ma bàyyi noonu donc c'était le samedi boobu gaa yi waajal tabaski live ma le dimanche lundi tabaski mu dem tabaski ji mais moom samedi boobu la génn mardi bu juuru tabaski bu ma defee live laa leen jomaay génn na pale ba génn na fële lu mu tuddati King Fat dellu na pale ne noonu la demee journaliste yi koy posé démb xamuñu sax ne waa ji dellu na <laughs> journaliste yi toog di ko posé xamuñu sax ne waa ji dellu na mais ñi déglu sama live yëpp xam nañ ne waa ji dellu na pale bañu défar palé après bu mu ñëwee def live bi gaay ñi naan xana mystique la woon waxon na la ko ma du mystique du mystique <laughs> du mystique de ñu woon ay pax rek dédé du mystique dañoo yaq palé ñom dañoo ko day ba mu ba mu masolo vide caisse ya, ni la lañ ko waxé la nek palé la la wax pourtant daw palé musuma duggu palé rapper la bu musuma duggu palé mais dama leen wax ni palé ba caisse ya vide nañ ko bu ma leen koy wax boobu jawaay waxagu leen ko <laughs> waxagu leen ko di nu ma def ba xam ni keese dara amu fa un franc Mali amu fa kañ laa leen ko wax mais fàttaliku leen kañ laa leen ko wax ne leen yàq nañ pale kenn mënul nekk pale kenn foncier fees na bay tuuru yàqate nañ lépp mais nag du ay affaire mystique ñu ma leen ko waxee woon leen ko joxee waxee mu ne na keese fekk fa tous pale ba day fa yàqoon ñu ko doon réfectionné ba mu ñu ko réfectionné dellu na Les journalistes, qui ont posé des questions sax koy laaj ba xam ils oh, donc ils sont hyper informés hyper informés Toc de xaar mais ñëwaat encore ci ils gor la ils pouvoir par le biais du peuple sénégalais ils jox ko ils sont dem <laughs> lay man waa yooyu moo ma jommal quoi Sonko mooy est-ce kii nit la man jël pouvoir bi jox ko Diomaye kër toog dem toog toog këram Diomaye di xaar Sonko Sonko toog këram maa ngi gàlle maa ngi kii nangam naan pour ñu ñëw defar gouvernement mais Sonko dafa def dafa jël nguur gi jox ko Diomaye pare bëgg a raxasu bëgg dem taxawee neli nekk ci li mu nekk moom mu waree conseil bu ko jomaay wooyee mu wax ko lu mu war a wax dem mais buggul bugguloon doon dara mais jomaay na ko mais yow sa waay man yow laa xaar <laughs> yow laa xaar de pour ñu teg gouvernement Sonko ne ko man mii no boo gérer sa affaire rek yow yaay président général bugguma la obstruire bugguma la yàqal bugguma la lii li gars yi di wax nii opposant opposant yi di wax nii Sonko gisoon na ko Sonko kongoliw Sonko gisoon na ni bu jégué ak jomay rek gaay dañ nan ay mi ngi koy neub jamono mi ngi koy neub ngalaw mi ngi koy neub mi ngi koy ki mi ngi koy neub lumière bi mi ngi koy billahi lepp gisono jomay mo wo Sonko nako me mais ñëwal yow laay xaar nañ tek gouvernement bi <laughs> Sonko nako no non ça va gérel yaa jël nguur gi té le président gérel gérel ci jamm gérel ci jamm man bo amé dal conseil yu nga yaakaar ne mën naa la wax na la wax buma gisé tam luma la wax na la ko wax mais man gérel sama ñoko ko man ma géré fii yow nga toog sa kër xalaatuma ko loolu moom mënul nekk wala ma bàyyi nguur gi démissionné ci moment bu mu ko jëlee son jomaay ne Sonko da ngay ñëw ñu liggéey parce que yaa ma fi teg yow yow yaa ma fi teg yow fii kenn taguma fi kutul yow donc amul lu mën a jiite te doo doo ci ànd yaa ma fi teg man taguma fi sama bopp yaa ma fi teg yaa ma joxañ àdduna bi yëpp topp la ñu mu def ma li ma dem donc da ngay ànd ak man mais Sonko ne du ànd ak Diomaye ne ko non non non du ma la yàqal du jage du ma la laal coow loolu loolu mooy yeexal gouvernement bi ñu samp ko parce que Diomaye Sonko nangul woon doon premier ministre def na Diomaye wutil premier ministre ngeen gérer seen gouvernement Diomaye na ko xalaatuma ko gis nga ñaari gor yooyu ñaar ñooñu ñu loolu musul am ci àdduna Diomaye ne Sonko du ma fi jiite Sénégal fii te yow nekkoo premier ministre Sonko proposé wu ko de Diomaye moo ko ne duma jiite Sénégal te yow nekkoo premier ministre boo ko doonul je démissionne man Diomaye je démissionne ku nekk téye fu nga téye Sénégal yëpp di xaar gouvernement bi wax kañ la ñuy sampu kañ la ñuy samp boobu ñoom ñi ngi ci loolu Sonko naan ko dama lay bàyyi nga gérer Diomaye naan ko du ma fi gérer te doo fi taxaw. man ak yow kay tànk ak tànk mbagg ak mbagg waxoon naa la ko léegi sama xarit nga tànk ak tànk mbagg ak mbagg boo dee ma dee boo dundee ma dund loolu moo ko yeexal premier ministre boobu moo ko yeexal il a fallu ay nit dox ci diggante bi waxtaan ak ñoom ku ci mel ni euh, Jibi Gueye Ndiaye Jibi Gueye Ndiaye ñi ñëw pale ñoom ñëpp ay ñoom euh, Abbas ak Abbas Fall ak ay ñoom ñëpp ñoo toogoon foofu pale di waxtaan mais Sonko kii sas na la lii kay jàpp jàppale ko yow yaa ko teg fi mu toog fi mu du sagom du bëgg-bëggam yaa ko fa teg kon yaa ko sa ko sas comme yaa ko ko sas yow la Sénégal bëgg yow la Sénégal mom sax da doon xex pour nga doon président yalla décidé autrement légui nak tax taxawal jàppale ko lolou la Sonko nangou ne ok ci la doonee premier ministre ñu commencé xol nu ñuy tegee gouvernement kooku gore na il est généreux il est gentil il est aimable sincèrement li musul am bu Sénégal existé ba légui. est-ce que Mamadou Dia comme wa jooju déglu na ben journaliste bu joxe exemple est-ce que Mamadou Dia ak Senghor ni lañ melone? est-ce que Mamadou Dia ak Senghor ni lañ melone? est-ce que Mamadou Dia da bëggoon nguur Senghor Senghor bu Mamadou Dia bëggul nguur Senghor bëggul nguur Mamadou Dia nan Senghor jiiteel Senghor nan Mamadou Dia jiiteel est-ce que est-ce que est-ce que ay xarit lañ won du ñu woon ay xarit Mamadou Dia ak Senghor du ñu ay xarit Senghor musul wax Mamadou Dia kaay jiite jaa Dia musul wax Senghor kaay kaay jiite ñuy xëccoo ku nekk naan yow jëlal jëlal yóbbul yóbbul sa kër c'est même pas la même chose Senghor dafa bëggoon nguur adduna bakkan la teg nguur muy rey ay doomu aadama pour toog ci nguur gi noonu la def ni mu defee woon doomu aadama yi rey leen noonu la def Mamadou Dia ko trahir Senghor est un mënul sax bokk ak ay ñoom sonkook ak Jomaay c'est même pas la même chose bokkuñ sax kaa nuróowuñu mais ñooñu xamuñu histoire xamuñu histoire dañoo xamul histoire dañoo xamul ni Jomaay moo fal Sonko mu doon président parti Pastef ñu dem ba jimmi jamono Sonko fal Jomaay Jomaay di ko delloo loolu moo tax mu loon na gaa ay muy lorñe photo yi lorñe yow kii fal waa ji di lorñee fu sa son ko jël jomaay defar chaise ba bule Macky Sall kajj ko ci biti jël chaise jël yanu yanu jomaay teg ko ci chaise bi après toog di lorñe chaise bi mais déggal waxi dof yooyu hmm? mi ngi mel ni sa yaay bu la jël yow bébé tëddal la cib lal dem ñu ne day day day lorñe day day day lorñe lal bi ko <laughs> Sonko kay moo toogal jomaay ci fauteuil boobu moo ko yanu nii ba toogloo ko fa mettre ko à l'aise ba bëgg a dem yoonam après dof buy poser question daal dafay lorñe ki jël nit ki kay ba teg ko fa kay noo koy lorñee ah fere waxi dof waxi dof dëgg non sens ki la yanu ba teg la fenn kay lu muy lorñee foofu bu ko soxla woon doo fa toog bu ko soxla woon bu Macky li ñëwee lay nangu doo fa toog kon moo tax jomaay gën leen a dee jomaay moom tamit waa njaga ñaaw la moo leen gën a xasaw fuuf ne non man waxuma sax mu koy lorñe na ko xulli na ko xulli te bu mu ko bu mu ci teggi bëtam <laughs> moo tax man j'aime bien ce genre de réponse ne lorñe sax dafa tuuti na ko xulli xulli lorñe moom mooy ci bët na ko xulli wala mu ñëw yanu ko looloo sax mu gën a dee booy booy mën a tontu lañ nag booy mën a tontu lañ il faut gars yi xam ni biiru dem na biiru dem na biiru yambar boobu doon toog biir bi réy nii muy mel ni mbott loolu ma koy ñaan ko loolu ma koy ñaan doon yàlla am ay cogg yu topp wër ko nii bu génnee gars yi taw wuy sama nday ñi ñi tëdd ñi ñi ñi jaaxaan muy dox seen kaw nii ngen na maa mi biir ana kii bi ana maanaam maanaam foo ne yow jeex na yi ay booy dëgër ñoo fi ne tontu tontu yi saf saf boo doonee dof ñu faj la ci saase ci saase lañ lay faj ñaari bokkatuñu il faut ngeen xam ni nguuru yembar boobu borom deq ba dem na ay booy yu dëgër ñoo fi ne yuy entraîné yuy entraîné ne waxoon waxoon naa leen fii ne jomaay euh, def na viet ba daaw loxo bi fu ne lay dem tànk bi fu ne lay dem sonko ba léegi sonko taekwondo ay boo yooyu laa bu xolal waxuma ne sécurité xam nga gars ne ay sécurité yooyu gis nga gars yu wër ñooñu jomaay tànk bi day naaw ci kaw di wàcc billaay wallaay wa taalaay moom kese boo ko songee dina lu dóor ba toog sa kaw moom kese laa la wax garde la garde tey boo jóoleen jomaay mu toog sa mu garde la yow ceinture noire verte bo daaw la tay kondo gis nga tànk bi fu muy dem ci kaw tànk bi ci kaw bopp ci kaw ñëw nga xam nga xam ni ñii ay ñii dañoo def arts martiaux ba léegi Sonko day entraîné boo demee hôtel King Fahd Palace salle salle d' entraînement bi foofu la Sonko di entraîné ñàkk tooy xat ba suñ jonn yàlla te chaque dimanche boo la ko bëggee gis dem leen foofu tey jii boo demee di ko fa fekk day ñàkk di entraîné ba def keng jomaay lay entraîné biir palais ñooñu du ñu yambar du ay ay ñoom Thierno Bocoum ak ay ñoom euh, Bougane Gueye Dany taxawaalu wëndaalu de ñoom kese dañ lay ñuus Sonko kese ak yow góor góor mu ñuus la Diomaye kese mu ñuus la donc ñooñu bokk ñoo biiru mun nañ wax mun nañ tontu ay jeunes lañ dañuy entraîner bàyyiwuñ seen yaram du ñu yambar te def nañ mbedd te def nañ mbedd yàgg nañ ci mbedd mi it il ngeen xam loolu moo tax ay waxi dof boobu noonu kooku taxaw na waaw finalement sa yow Sonko moom day lorñe fauteuil bi quoi ku la teg foofu la jomaay tontu tontu yi saf sàpp la leen tontu tontu yi saf sàpp ay waxi dof dëgg la ñuy wax waxi dof dëgg non du ko lorñe na ko xulli bu bëggee sax ma jox ko ko nag ma wax ji jeex ay waxi dof la ñuy wax xamuñu dara ci affaire yi xamuñu dara des fois da ngay dëgg seen question nu ñuy questionné sax question yi sax c'est pas ordonné c'est pas ordonné gaay nak nag da danaa leen waxal dara ñii lépp danañ ko régler tout danañ ko régler ba mat seuk gaay ray gaay gars yi taxaw ci justice bi ñi leen sosal ñi leen fenal dinañ taxaw ci justice bi ñi sacc alal sénégalais dinañ taxaw ci justice bi jamm dina am ñoy réew mi dina dox 100 jours de tous nix nada par rapport ak 5 ans ñi xaar nak ñi ñi nekk fii di rayanteeg xëccoog yooyu ñuy def noonu ay nu nu Macky Sall doon def di di éliminer ñu mu jàpp ni ay prétendant lañ munoon nañ doon mu éliminer Karim Wade parce que dafa jàpp ne Karim Wade mun na doon président bu koy remplacer di éliminer Khalifa Sall éliminer bu ko éliminer Sonko non ñii éliminer wuñ kenn éliminer wuñ kenn képp ku yoreel askan wi di nga fay ci nii mbaa ci ne dinañ nangu say kër nangu say richesse nangu bloqué say compte en banque doon la ci kasso bi loolu man ma len ko wax te legui rek bu buñ euh buñ laalee magistrature bi lepp tout bam mu nañ len jot dossier di ngeen gis gaay di dama ka ñew ci ngeen di comprendre gaay duñu dara wa duñu tous ci ngeen len di ngeen gis seen jabanté di ngeen gis ñu commencé bloquer seen banque compte yi di commencé di len traquer di len tecc ci kasso di ngeen gis lepp lolou mi ngi ñew ci suñu kanam te ñom xam nañ lolou ñing koy listé xaar ñi ngi jaabante ci àll yi ci àll yi la ñu nekk liggéeyatuñu liggéeyatuñu kenn ci ñoom ministre moom dalay taayalloo liggéeyatuñu kenn ci ñoom ñoom ñëpp amoon nañu ay fonction ñoom ñëpp ba bàyyi fonction ñoom ñëpp a ngi seen kër yi toog di encaissé di lekk sàcc milliards yi ñu sàccoon ñëpp benn par benn dinañ leen woo benn am na ñoo xam nag ñii ci sëriñ yi lañ dem ñii ñi ngi jéem a jege Sonko ak Diomaye pour waxtaan ak ñoom loolu moom naa la ko wax ñii ñii ñi ngi toog ñii ñi ngi làqatu ñii ñi ngi noppi pour ñu fàtte leen ñii ñi ngi négocier ak Sonko ak pour mu dimbale leen baal leen wala ñu fay leen nangam nangam pour seen dossier bu mu jog ci kaw lépp am na ñii ñi ngi ci sëriñ yi ñi waa moo tax talluñu APR existé tul ñii ñi ngi làqatu noppi ñii ñi ngi jéem a xool lu ñu gisee ak Sonko ak Diomaye pour négocier pour jéem a xool lu ñu fay en attendant seen dossier parce que am na seen dossier ñii daw ñii ñi ngi daw ñii ñi ngi ci kër sëriñ yi ñii ñi ngi sëriñtu ci àll bi nii waa APR nii ñii ñi ñoo composé cocc cocc nag nag loolu lépp incha allah dina réglé wu mais li ma leen mën a xamal daal moom mooy ñaar ñii moom dañoo gëmul àdduna sax nag jiitaluñu àdduna te àdduna mënu leen séparé àdduna munu leen séparé dafa am benn boroom xam-xam bu ma doon wax benn affaire mun ne ma boy japp ne japp ko te yalla tax boko jappé te yalla tax tànk yalla gi nek sen digënté jéxul do len bàyyante mu ne boo jàppee nit ta dara tax lolu ak lu mu bëri bëri bëri dina jéx té bu jéxé di ngeen bàyyante parce que lolu mo len bolé ñu bo jappé jàppee nit ndax alal ndax tar ndax lenen ak lenen lolu yëpp dina mun dem éphémère la mun dem té bu démé rek digënté ba day jeex mais ne boo jàppee nit ak yalla ndax yalla rek tax tax yalla du jeex nee na digënté bobu du musa a jeex donc digënté bu dee fa ne du jeex te loolu mo nekk ci digënté Sonko ak jomay yalla kese mo nekk ci digënté Sonko ak jomay du alal du jigen du aduna du ñooñu dañoo jaxasoo dañu dem ba nekk benn benn benn benn ay nit la yu <laughs> gis na gaay ñom ñom ñom Cheikh Bara ndjay dem Petit Palais ak booy yi dem petit palais noonu gars yi non mais gars yi bu leen wane lii yow yow yéen a gis petit palais est-ce que xam ngeen ni Sonko Sonko bëgguloon sax génn këram googu Sonko ak Diomaye ku leen bàyyi woon billahi duñu génn seen kër yi bëgguñu woon génn seen kër yi protocole yi ñoo leen yóbbu fii ñu gis ay ñoom Cheikh Bara Ndiaye di fa dem ak ñooñu gars non bu leen wane lii li lay tax nangam lan mooy petit pale nit yi seen kër yi ñoo leen gën a petit palais luy petit pale mais lan mooy petit palais ñi di seen kër yi ñoo leen gënal petit palais man na sama kaw Kaolack gële moo ma gënal pare sama saalum gële moo ma gënal loo gis Canada gii ma ne sama saalum moo ma gënal ndax xam naa ne fa laay mujj bu ma fi deewoon saalum laay mujj ak nuñ ma sange sange sange saalum laay mujj fa laa dëkk bu ndox ma naqaree moom laa bëgg moom moo ma def ni ma day nii ga laa dundee cere ga laa dundee maafe ga laa dundee suppu kànja ga laa dundee mbaxalu salum nga momo ma day moo def luma day nii yaramu mbaxalu salum la la eh, yaramu cere la basé yaramu yaramu cere mbokk la momo def li te am am ci fierté la ngay dundé ba day ni boko bayiwul du la ray nit yi jël ay petit palais ay palais bu ko def du tous du tous suñu kër gënal suñu kër yi ñooñu ko gënal légui gaay bu nga jël petit palais gàtt petit palais sonku bëggul won sax joggé kërëm bu sañon petit palais gaay dañ ko ko forcer nako non non non protocole bi mënul nekk ma dañuy tam dañuy tam seen kër yi ba dañuy daw sax di làqutu di dem seen kër yi dañuy la mais bu buñ buñ jëlé pouvoir bi mais ñu dëkk palais direct jo jomaay wax na leen ko dem dañ ko forcer genn ko kërëm dañ ko agressé génn ko këram protocole palais bi agressé ko mu dem euh, azalaay ñu koy garder mais loolu neexu ko loolu neexu ko buñ sañoon seen gaañu démb yi ñëw gis ak ñoom ñëw naan ataaya waxtaan man tey am na foo xam boo ma dugalee danga may rey am na foo xam ne tey boo dugalee danga may rey parce que tàmmu ko donc noonu la mel donc gars yi ay nit lañ yu xamne ay nit lañ yu jiitalul àdduna yoo xam ne bu ñu sax bu rombu do fi nek di kor yu ko ay pin pin motar yek escorté yek dak nit yi gëmuñu ko mais luñ fi fekk la donc Sénégal mom il faut ngeen xamni Sonko ak jomay chance bu ngand la nganda nganda nganda moo tax ngeen tek ci sen bakkan ta non la tek leen ci sen bakkan waaw sweet home la kaanay wax sweet home sweet home dara gënul sa gàlle dara gënu gënul sa néeg fi ma nekk nii kër gaa ngi nii kër gi yaatu yàmb yanjalan man cundung dëkk fi kër kër gaa ngi nii lépp man rek maa fi nekk te pourtant saaluma ma ko gënal maa ngi nii nekk sama jaam ak salaam am sama jardin fële génn bu mun teg sama barbecue ngandam néeg tout mais Saalum ma <laughs> ko gënal Saalum moo ma ko gënal Saalum moo ma gënal lii waaw Saalum moo ma gënal mooy sama home sweet home moo ma ko gënal lu mu am Saalum moo ma ko gënal donc mais nag heureusement que sénégalais xam nañ moo tax fu mu ne nii kenn mënu leen manipuler kenn mënu leen manipuler kenn du bugaan. du kenen ak kenen kenen mënu len manipuler wa APR seen manipulation yi def yëpp ben musi ci soti buñu buñu bu ñu deug ñu xamoon dañuy noppali buñuy manipuler ba léegi gars dañuy gëna bëgg sonku plus ñi manipuler ñi gëna a bëgg sonku plus ñi fen ñi gëna a bëgg sonku mensonge et manipulation mënu fi prospérer il faut que ñom ñu comprendre ni sen génération dafa jeex benen jeunesse mo fi nek jeunesse bu éveillé ay nit yu am xel nit yi yow kenn du daane Sonko ci ay menace ci ay manipulation ak mensonge waxna len ko ba son dañuy tok seetaani video deglu deglu gees deug bi ba ne keng man de dem dag ben affaire monte këppati ko ba mu ki ñu jox ko gaay mu dugg dugg TikTok ñu xol ko ñu nax mais xolal à la fin ñu kenn à la fin ñu kenn

té aduna mënul neex a neex ba ñooñu don fee doon dara ci samay kanam non non non aduna mënul neex a neex ci sama kanam gi sama bëtt yi ma fekk demb ak bërki demb doon ponkal ci seen kanam bu ñu toog ak man dañ naan cocc yaru nek nit ñu doon seeni baay ñu faañu respecté ñu di joggé seen kër yi di taw di ñëw suñu kër yi bu ñu toogee bu ñu toogee ñun ñooy chef yi ñoom ñu toog duñu attaayaal yooyu ñu àdduna di doxa doxa dox bay tourmenté wu ba ñooñu bëgg fee doon dara toog ci média yi ñu leen di invité yooyu gis nga man kooku du ma gis kooku xam kan laa gis kooku doon toog foofu di ma caayinal kooku doon toog nga xam ne bu ma nee mu ne un yàlla wax na wala yeneen wax na man ñooñu laay gis man ñooñu munu ma àdduna nag duma ma wàcce munuñu fee yéeg a yéeg ba àdduna wàcce ma ba ñooñu doon dara sama kanam moo tax àdduna musul neex ba mu déglu Fadel Baro billaahi wallahi musul neex ba ma toog naan damay déglu Fadel Barro quoi xaw ma lan laay déglu ci moom xaw ma xaw dara isig la génnee simple journaliste nijaayam école nijaayam Abdoulatif Coulibaly fa la génnee génn kurti kurti lu mu am ñoo ko ko may di ñu fréquenté ñëw parcelle taxawaalu wëndaalu ñuy créé yaana maar jiital ko ca en tant que journaliste mu dem indi ji Alioune Sané buy jàng journal ñu nekk ay élèves journaliste nekk suñuy fiis retourne ñëw kutt ci bu commencé toog ci télé yi di jooy ak ci fenn ak googu man dooy toog di ree war a démb moo seetaan dooy xibaar tey àdduna Sénégal daal naanaan daal naanaan yomb fi quoi ngay daal léegi dañuy mujjee doon dara daal bay toog ci palaat yi ñuy invité ku nekk <laughs>

sénégalais yi dañoo am jot ñëpp la ñuy seetaan ñëpp la ñuy déglu ñëpp la ñuy seetaan ñëpp la ñuy déglu ñoom ba amuñu xàjj ak seen ñëpp la ñuy déglu te ñëpp buñ dégloo man lañ koy mujjee mam mam ci man la ñuy ñëw moo laa waxal ci kii non moo ay ñu tekkul dara te man niñ may waxal waxal ñooñu nawloowuma leen sax non moo laa waxal ci kii du seetaan du seetaan mais comme ñoom oisiveté il faut que jomaay wutal leen liggéey bu leen jomaay wutal leen liggéey rek ñu am 40 heures par semaine wallaay dootuñu amate jot naa dañuy déglu ñu parce que dañuy ñëw sonn tas bu ñëwee duñ tal ubbi naan dañuy seetaan ay benn euh, euh, taxawaalukat buy wax ak ñoom ak ay benn kii nangam naa ñu toog fa duñ ko def mais malheureusement dañoo bëri jot lu ubbi ñu xool dañu toog rek de sax waa ji di fen ñiy mer di mer toog di fen waa ji di fen ñiy mer non bugaan non moo laa waxal ci bugaan boog non moo laa waxal ci bugaan mu billaay seetaanu ma bugaan nan laa mën a waxee ci bugaan te seetaanu ma bugaan nan laa waxee bugaan te nawlawu ma bugaan nan laa waxee bugaan te bugaan ay waxam intéressé wu ma nan laa waxee bugaan te bugaan ay waxam ay dof dof buy taxawaal laa ko jàppee wala nit ku mer di funki noonu laay mën a waxee mais ndeysaan malheureusement dama yaanu loo xam ni ñoom ñooy seetaan ñooy naan may màndi ñoom ñooy naan mais man may màndi ñooy dem naan naan naan póotit ma ñëw ne ma màndil te comme dama leen a bëgg nag damay màndi par force dañ may agressé rek way sénégalais yii chaque jour ñu agressé ma dañuy naan yi fële ba def tat tat ci póotit ma ñëw ne ma màndil ma màndil leen nag <laughs> dañuy dem naan buggaan di fen ñii naan muy fen ñii naan ñii fen mu ñii naan ba def tat bu ñu paree nag man la ñu wax ma mandil leen eh, non mandilal bugaan yok moo laa mandilal bugaan fekk man ñoom ñoo màndi fële man fekkewu ma bu muy fen man fekkewu ma yëguma dégluwuma ko xaw ma sax ni wax na mais ndeysaan ñooy mandi fee ñooy naan fële seen pootit na ma màndil ma mandil waaja buñ démb dem demati nañ waajale lu mu tëddati Euh, Fadel Baro ñu mandif naan fa ba def tat ñëw ne ma ma mandil leen ci kaw Fadel Baro moo laa mandil ñu ci kaw Fadel Baro non moo laa waxal ak Fadel Baro non mandil ci kawam mais naanu ma naanu ma bëgg a mandi yéen a naan yéen a naan na yéen a ko naan na ngeen ko mandee loolu moom dama koy wax ak yéen tey da ngeen may may jàmm jàmm moom da ngeen ma ko may munu leen naan fële ne ma maa leen koy mandil boo leen naanee di ngeen ko mandil seen bopp yéen a ko naan di ngeen ko mandil seen bopp boo leen demee ci taxawaalukat yi naan fa ba def tak ci seen baar yi ñu jox leen ay sàngara gu biiñ sum-sum jooni ngeen def ca tak na ngeen ko màndi boo leen ko naanee nangeen ngeen ko màndee leen ko naan ma leen koy màndil na mujj ci tey li ngeen boo leen demee ca baar ya bugaan wala dugg ci baaru taxawaalukat wala euh, euh, lu lu lu mu tudde ca baaru taxawaalukat yi ba ba màndi fa boo leen fa naanee da ngeen ko màndi na ngeen fa mandi te bu kenn ñëw ci man na ma mandilal kii duma ma ko mandil du ko mandil ndax naanu ma ko naanu ma ko naanu ma sum-sum naanu ma jóoni ñaanu ma walkeer naanu ma biiñ yéen a ko naan te di ngeen ko mandi na leer dama sonn ci yéen billaahi dama sonn yéen du ngeen ma amel li ngeen ma amel boo leen ma ko fayee àjjana jëm direct foo leen dem taxaw ku ubbi baaram ngeen mandi ji ku ubbi baaram ngeen naani ku ubbi baaram Bougane ubbi baar ngeen taxaw muy duul ngay nan rek daf tag ñëw voilà man de la waaj ah, voilà gi nga waaj ah, ah non waaj dama dem foofu mu dóor ma quarante butel butel sum-sum yoo xam ne mais mandil ko waay mandil ko waxal ci Bougane mandil ko mais yaa fa dugg yaa fa dem mu xelli la sum-sum xelli la biiñ nga def tag mënuma koo mandil parce que daw ma ca baar ba dugguma ci baar ba yéen la comme da ngeen a am jot mun a dem dugg ci seen baar yooyu ñu sol leen ni sàngara ba ngeen kii da ngeen ko mandé te da ngeen ko naan da ngeen ko mandé point nay leer foofu laa yem ak yéen nag dama sonn ci yéen foo leen demee def seen i tooxi doon na ñëw na ma xeexal ñu ko wala waxal ñu ko wala nanga ma ne man am nga jotu ñooñu yéen ñooñu ñoo am valeur ci seen kanam ba ba di leen di leen njaaba njalle eh, man man man man man man man ey bu fi bu ma fi buggaan nga nga dégg cocc lay def cocc cocc cocc cocc xam ma bu baax a baax a wax ak moom respect barke alxuraan doful ji ne te numéro ma ngi nii buggaan kay daal numéro ma ngi nii numéro ngi nii numéro ma ngi nii numéro buggaan kay daal ni kii du buggaan kay daal numéro ma ngi nii loolu bu ñu bu ma koy woo cocc lay def cocc waaw moo la waaw non non c'est-à-dire yaru yaru mais bu ñëwee ci yéen ngeen dem foofu mu ma mu sol leen sàngara ba nga def tat ñëw na naa ko mandil mënu ma ko mandil mënu ma ko mandil cër la ma jox bu ma ko wax ak moom cocc lay wax te respect lay wax ak man cocc cër cër gu mat sëkk wax ak man waxu nit may wax ak moom waxu nit ñu kuppe <laughs> moo tax saa yu gisee ma mandil ko de mais moo laa lan laa ko def mais ñii la de bugaan ñii nii la ñii ñi ñoo la jox valeur ba di la déglu te ñi ñi ngay mandilo ñi ñew di ma wax man ma lay mandil defoo dara billahi defoo bu doon ma nak yow rek aw ma sa jot duma la seetaan intéressé woo ma xam-xam amo vision dara amo ko bu dé man la rek nawloowu ma yow xam nga xam nga bu baax ni bu dé man yow rek nawloowu ma la du ma la mais comme sama gaay yi def fofu nga mandil leen ñi ñew di na na mandi sa kaw na màbb sa kaw mais defoo dara dëgg-dëgg ñom ñu dañuy jaxlay parce que ku ci wax ne mais moo tax wax naa moom léegi mais pourtant que mais ñii la ñëw ma sonnal ñii ñëw ma teg soq. billaahi loolu lu lu fu ma dugg rek ñëw ma fa dugg ñëw fu ma dugg ñëw ma fa dugg parce que ñooy dem di déglu ñooñu mais man rek ak sama conscience tranquille ma ubbi sama portable bii aw ma ku may seetaan nan damay seetaan Fadel Barro <laughs> ma xam ne man feebar naa man mii kese man conscience tranquille dofuma naanuma sàngara toxuma yàmbaa mu ubbi sama portable bi, sama yaay dama koy sara ma Fadel Baro dina mané ne mais sama dom ji commencé na feebar de Fadel Baro lu mo la di jang ci Fadel Baro mo la mo mujjé sanku bay déglu Fadel eh, eh, way sama dom ji kon sama yaay day yónnee pour ñu pour nit ñi ñëw fi pour yóbbu ma faj ma xamul lan la jang ci Fadel Baro dama xamul lan la lu Fadel Baro du yokk lan lan asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu peace and love and am out jaajëf sama gars jàmm